mbokk yi xaritu téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ci DTV la magie de la télé guddi gi tàmbaliwaat na comme ni ñu koy defee guddi gu jot ànd ak yéen gunge leen ci émission yi nga xamante ne euh, mu ëpp solo ci émission yi ndax li ñuy waxtaanee dafay soxal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di suñu ay euh, téléspectateurs di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen ñu toppee guddi gu jot ci canal 12 bu TNT by Excaf waaye tamit ci canal 11 bu TV d'Orange fàttewuñu aussi waa DTV Sénégal. ci Facebook bi ak ci YouTube bi di leen gërëm kontaan nañu ci ni ngeen ñuy xaaree guddi gu jot rawatina waa bitim réew yi nga xamante ne émission bi moo leen di gunge guddi gu jot di leen nuyu kontaan nañu waaye fàttewuñu aussi waa Gambia ñu ngi leen di ziar bu baax a baax Gambia sunu réew. ndax ñoom guddi gu jot dañuy envoyé ay message dañu wan seen cofeel ci émission bi lee ak ni ñu ciy àndee ñoom donc ñu leen di gërëm kontaan nañu tey ñu war a waxtaanee waat lu am solo mooy waxtaanee réew mi ak li nga xamante ne moo am ci réew mi jafe-jafe yi coow yi waaye itam mbirum ñaan ak seet ah, ndax tey dañ cee invité koo xamante ne caporal la wala boog ah, général la ci li nga xamante ne moom moo di mbirum seet ak ñaan muy sunu yaay di euh, maman Talibé Cheikhna ah ngeen yàgg ko gis lool ci réseaux sociaux yi muy def ay révélation yu am solo di wax li nga xamante ne ah, mooy xew ci réew mi te ñëwagul yàggul dara ah wax na ci li nga xamante ne moo xew ci BRT bi fële ca Grand Yoff bi nga xamante ne ah, jur na sax ay jéye foofu mu waxoon ko nag semaine passée ndax loolu moom maa ko mën a sedd ndax demoon naa këram man semaine bii passée waxtaan ceeg moom mu defoon ay avertissement ne balaa ñu koy dawal wala bala ñu koy tek ci kaw tali bi nañ ci def ay ñaan génn ay sarax ah te gaay nak leg leg bo leen waxe sarax rek ah, day japp na ay door la te xamuñu na sarax dafa baax ah, te leg-leg, walu politique ak yu ni mel dañuy fatte def li nga xamante fi lañ ko fekk muy aada te mami bayiko fi moy nit lepp lu muy dugg rek war naa génne sarax balaa mu ci dugg na boo xamee nag sarax bi nga xamante ne moom nga ci war a def laata nga ci dugg loolu lépp tey daa ko waxtaanee ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne aussi waxoon na ko ndëgg ni daaw mbirum géej gi ah yoonu géej gi xale yi nga xamante ne aussi hmm, dañu ñeme lool snap bi ah waxoon na ko fi vidéo boobu man mi maa ko jëloon tam daaw mu waxoon ci nañu moytu téléphone yi snap bi bëri na di exposé sa bopp ah ndax rab yeeg jinne yi fu ne la dugg te. li ñuy gën a bëgg mooy koo xam ne dafa fës donc loolu aussi mu waxoon ko te boobu tam maa demoon jëli ko ah boobu ba léegi nag ñu ngi bëgg teg émission boo xamante ne daf ñu war a indil ay leeral ci loolu nga xamante ne daan na ko gis waaye tey la ko yàlla dogal ñu nekk nag ci ay màggal bi di ñaanal ñëpp ñu màggal ci jàmm ak salaam ndax nag ah, yoon bi léegi ah, léeg moom ay jafe-jafe te moom mii am na lu mu ci wax ci yoonu màggal gi te wax na aussi ku nekk ci ñoom rek na xam ne li ngay uti yiw la kon jarul njëkkante jarul daw bay daanu doxal Dank, wala nga daw ndànk bayk do lepp tay dañ ko waxtane ci émission bile dañ dugg tay fep ci politique ak hmm, lamb football bek fep lañu dugg ndax ki ñu invité macha allah da ko cee may. umu mu ngi fi ah, di la tigresse ngeen namoon ko lol day daw liggéey nak légui tay mom dina ko feñal umu day daw liggéey umu day xëy na dama feebar tay sama yaram neexul umu tay dama ki sama sister bi eh, tapale day daaw liggéey ah. <laughs> Mouhamed mu ngi fi suma xarit hmm, moom tamit defe naa ne eh, bi may ñaareelu yoon muy ñëw ti émission bi lee ah, moom tamit yàlla may ko lool ci xam-xam waxtaan ak ñi nga xamante ne ay ñaankatu yàlla lañu ndax ah, xam na leen te yàgg naa ak ñoom waaye nag mu nekk koo xamante ni suma frère la ñu yàgg lool man ak moom boobu ca caméra yi see njëkk ya la journée 5000 muy góorgóorlu tey ba yàlla dimbali ko donc tey moom tam mu ngi ci plateau bi. di war a gunge ñu nag tey ci ak sunu gan gi mais daal ndakaaru daal tey noo gisee bi nga xëyee tey loo yëg. tey bi ma xëyee. Hmm. Euh, gannaaw bu ma hmm. hmm. daal dama yeew dëkk bi niis quoi. waaw amul naaj. di xiin di taw di bàyyi. waaw loolu daal loolu daal seet naaw tey ci dëkk bi daal. sa téléphone bi noo noo yeewoo tey. laa ilaaha illallaah car car mais Yves télégramme na ah. Yves am na numéro yoo xam ni. ku nga leen dégg. cinq ans ci ginnaaw et li gën a garaaw. Mm. kii bi yi mu tuddati whatsapp bi da ngay jékki-jékki rek. Mm. ça va daal la. Mm. ma ne non c'est pas naturel. oui <laughs> c'est pas naturel. effet télé. effet télé <laughs> maa ngi nuy wax Sénégal di leen nuyu yéen ñëpp yéen ñu toog. di waajal teg nag sama sama waaw café gi waaw mooy aada bi waaw ay dose waaw ay dose ay kaas yu yab waaw laayal ndax day naan kaas day naan café voilà ah maire day yaay hmm. yàlla dogal ma naan café du ma naan ataaya. waaw doo yëy guro. du guro. da ngay def comme sos. <laughs> doo dama doon naan café. Hmm. di naan ataaya. Hmm. Ah. di jël extant kaaneeg yooyu noonu. mais année bi passé dama feebar. Ah, sama médecin tere ma lépp luy excitant. ok. du ma naan kafe du ma mm. naan ataaya man meew sax du ma ko naan. Mm. waaw man man du ma naan man bu ma yeewoo. Mm. defal sama demi verre ndox bu tàng def ci moitié citron. Mm-hmm. ñaari kuddu lem naan. waaw ah, de moo gën toogee ba mu naaj. Mm-hmm. xale yi defaral ma li may ndekkee. Mm-hmm. indi ma ma ndekki mais café du ci ànd meew du ci ànd. Hmm. dañ ma defaral plateau rek. yaa noppalu de nit ñi naan café ñu ataaya ñun man daal wax dëgg ñi bëgg lu bëri du ma jël man du ma naan sax soow. Hmm? waaw man du ma naan sax soow. waaw ah, soow sax moom da lay sonal. waaw man du ma naan du ma naan sax soow. waaw ma day sonalaate rek. waaw rawatina soowu pël. mu ngi noonu soow bu diis bi. niw bi niw bi. <laughs> kontaan na jërëjëf daal la. merci le temps que ñu naan lawal ñu nuyu Oumou la tigresse su ko defee mu nuyu téléspectateurs yi

maa ngi lay nuyu yow. Mohamed. Mohamed depuis sànq ba tey yaa ngi jiiroo moment. Mhm. xamal ne fii seddoo la lu fi nekk rajo mhm. la nest <laughs> euh, lay nuyu di la sant. Mhm. Euh, di nuyu ñi seetaan ñoom ñëpp. bu nag émission guddi bi. nga xam ne nag euh, benn la fi. commencé na. toog seetaan ñu leen di nuyu ku ci nekk nag loxo xol. tibbee suñu biir xol. macha allah kontaan nañu Mohamed maa ngi lay nuyu. Eh, jërëjëf Yves. Mhm. ñu ngi lay jaar bu baax. ñu mhm. képp koo xam ni ñu euh, mhm. ngi seetaan euh, émission bi di. ñu ngi borom kër gi suma xarit di la nuyu yow. Euh, léegi rek maman taalibe Cheikh moom lañ koy wax. mooy borom kër gi. yow. non kan mooy da nga njëkk ne di nuyu borom kër gi après di la nuyu nuyu yow. déedéet da nga da nga am loo jiital. da nga ne boroom kër ngay nuyu doog ma nuyu. te yow mën nga war a njëkk nuyu balaa nga nuyu borom kër gi. soo gisee ma nuyu Jupiter. Hmm. jiita jaarale ko ci yow parce naa ne yow la affaire bi yow yaay buntu bi. ah koo xam ni. mun hmm. euh, maa wax ni ñi nga formé. Uh-huh. ak dafa bari. parce uh-huh. que ngi seetaan gis fi ñu invité uh-huh. xam ni Vito.

parce que heure bi ñu koy seetaan dina tax nga jëlee ci njariñ. Mhm. heure bi ñu koy seetaan dina stress bi ak obligation mhm. guddi gi. Mhm. problème yi ñuy am. bu ñu concentré wu seetaan bi dañuy désespéré man li may xam naa ko bu baax. donc nga éviter koo xam ni. lu ci bari ci kanam dina leer. parce que mun naa wax ni dëgg la malgré ko xam nga ko mais àdduna ñoo ko xam. dëgg la mu nekk nit koo xam ni. seede yàlla preuve. li may wax ni li muy wane ci preuve dafa bari. te guddi gi du n'importe moo dafa am solo du n'importe qui. non n'importe qui sax mën na fi ñëw. Ah. waaye doo fi ñëwaat. wala doo doo fi ñëwaat. parfois mën naa juum. loolu moom ñu topp ma rek naan ma invité ma diw sama xarit la invité ko ma teg la fi nga ay njombe doo doo fi ñëwaat doo fi ñëwaat boobu boobu moom damay damay joo xam <laughs> ne dina ci moom mm-hmm. donc du nuyu doomam ji mu àndal ak muy mm-hmm. asso secrétaire bi wax dëgg yàlla mm-hmm. ndax maanaam loolu bu ñëwee ci kanam dinaa ko leer am na aussi beneen assistante mooy bu gën a ndaw bi moo ma jox café keroog <laughs> loolu lay leer bu gën a ndaw dafa am solo gis nga këram <laughs> uh-huh. amul garde corps uh-huh. amul am na garde corps de. non si. non am na garde corps. photo bi nekk ci bunt bi loolay garde corps de. kenn du dof dof gis photo boobu ñu def. il faut de. looloo dama bàyyi yow looloo garaaw garde lu ku koy taxawal ci bunt bi. alors mu ko léegi nag gis nga njabootam googu. Mhm. ñoom ñooy ay xaritam. Mhm. am na vidéo boo xam ne bi muy mhm. def ay jàng bi ma koy seetaan sama rongoy mi ngi war parce que ay doomam ñooy ay xaritam. lu moom bokk na ko donc wax dëgg yàlla kon daal. dalal nga kàngam. koo xam ni. mun naa wax ni ñuy lu di seetaan bu leen yàkkamte lu bari dina leer tey. Mhm. parce que eh, Yves. Mhm. ñaankat yi dañoo bari léegi c'est trop. waaw am seen xol yi commencé di yëngu nii de. waaw wallaahi azim gisee ci plateau bi rek ñu commencé. di non day yëngu di maas. day daal nga dégg dëgg daal yow daal mais mosuma xam ne daal la gi <laughs> mais ku neex nga toog. daal gi nii. <laughs> gi ñëpp fi am place. damay romb kenn ci mbedd bi sama gaañ dem nga toog. gis nga mama taal bi dama toog foofu gis nga mhm. kii. billaahi dafa garaaw quoi gis nga Yves. xeebul kenn. billaahi wallaahi taala xeebul kenn maanaam man bu may gis fi daal léegi dama ne kii du nit. ñëpp la yemale. xool bi moo yaatu dafay yaatal. ah kañ <laughs> ah, lu tax loolu. <laughs> day daw liggéey. donc il doxal. kontaan nañ jërëjëf euh, maman Talibe Cheikh naa ñu ngi leen nuyu dalal ak jàpp ci guddi gi. maa ngi leen di fay Yves. Mhm. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Mhm. Yves sama doom. Mhm. loolu émission guddi gi waralu ko lu yàgg dëgg la. Mhm. di nuyu Mouhamed sama càmmiñ. Mhm. loolu tamit guddi gi waralu ko lu yàgg dëgg la. Mhm. maa ngi nuyu sama doom jigéen bii ma fi fekk. di nuyu waa àdduna wërngal képp góor ak jigéen mag ak ndaw. ku nekk ma fekk ko fa mu toog ni ko jàpp loxo ni ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu dàll. di nuyu sama assistante ak sama secrétaire comme ni nga koy waxee. Eh, eh. maa ngi nuyu sama yaay Fall. di ko ñaanal yal na yàlla guddal fana moom bépp yaay. di ñaanal sam papa fa mu tëdd yàlla na ko dàqal fi mu jógee. di ñaanal ñi ci lalu hôpital yi yal na leen yàlla yëkkati. ñi ci kaso yi yal na leen yàlla génne. yal na yàlla def ci suñu réew jàmm. Mm-hmm. te def ci suñuy poos dara. maa ngi nuyu di ja Yves sa yaay dafa yaatu ginnaaw. Mm-hmm. danga may may tuuti ma nuyoo. doxalal maa ngi nuyu. lingeer yi almadi 2 yi almadi 2 gi maa ngi nuyu lingeer yi mhm. parce que dama jóge alin Saw dem almadi mhm. mel ni waa almadi 2 dañu yàkkamte woon ma dëkk si ak ñoom mhm. maa ngi leen di ñoom ñëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci ndoxo maam jaara meeru mbootaay di nuyu waa Aline Saw waa association Maman Talibé Cheikh na maa ngi leen di nuyu di leen ziar maa ngi nuyu waa Cité Nations Unies usine céréale Maman Talibé Cheikh na maa ngi nuyu waa Cambérène 2 mhm. waa Calabas Mama Talibé Cheikh na maa ngi nuyu waa Fadia mhm. waa mouvement Mama Talibé Cheikh na mhm. maa ngi nuyu waa Nations Unies soppee Mama Talibé Cheikh na yi maa ngi nuyu aussi tamit waa jaar-jaari jàmbaar yi seen présidente nekk Mama Baro may jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom di ko naan nuyu naa jàmbaar yi Mama Talibé Cheikh na yépp jël nuyoo bi teg ko ci loxo Mama Baro ni ko ni ma ko séddaleen képp ku ma limul rek bu mu mer ndax ku lim da ngay juum te man damaa jaboot nuyu naa ñëpp mhm. ku dégg ma lim ko ak ku déggul ma lim ko mhm. ñëpp nuyu naa leen mhm. ak allah jërëjëf taalibe Cheikh naa ñu ngi lay gërëm ci sa teewaay tey ci émission bi euh, am na kenn kuy envoyé message nee na enfin maman taalibe Cheikh naa ñëw ci émission bi ndax yàgg na ko réclamé <laughs> ah spirit xaw man authentique waaw mu ngi ci YouTube bi ak ci Facebook bi. lu mm-hmm. ñu bàyyi xel nee na ma yàgg naa ko wax dafa war a ñëw dafa war a ñëw. kon nag tey ñëw na kontaan nañu. daal mm-hmm. fan la kafe bi toll. waaw ah, maa tàng tàngoo. jëlee micro bi. des hmm? rek. daal c'est que c'est des na tuuti bi parfois. Ah? di xaar affaire dafay a. non non bi mu ngi ñëw. <laughs> non parce que li warul yàgg daal la. daal da nga koo parce que dafa tàng te jotagul daal bu tàngee rek xel bi mu ñëw. waaw dafa yow daal da ngaa bëgg a rey nit ñi de daal yow café bi dafa bëri. yee. tey la tey yow kay. Hmm? non. tàng na daal tàng na. non naa ko gérer naa ah. je vais gérer. naa la dóor benn naa café bu garaaw. d' alors je fais des cafés courts. café court ah. ouais expresso. court mais allongé quoi. bah bah si. Euh, bu la neexee ah. d' accord d' kontaan nañu. Euh, ñu ngi nuyoo si suñu papa euh, Cheikh Ibrahima Kounta muy Serigne Ibrahima Kounta borom Ndiassane ñu ngi koy ziar bu baax a baax jamono ji ma nga fële ca Yoof moom ak njabootam di ñu bàyyi xel. ñu di ko wax rek mu gudd fan. Ah. te yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin Kounta bu baax a ku baax. ah koo xamante ne moom daf ñu jël rek doomu boppam. Mm-hmm. bëgguñu lool. um mm-hmm. sëñ mu ngi fi. Ngone sëñ Ibrahima Kounta mu ngi fi Mbalia sëñ Ibrahima bu leen wax naa ay da dem Ndiassane bàyyi ñu feek ñoo nax ak mu ngi fii yoo fa gën a jege ku ko bëgg gis nga dem seeti ko. mais kon mën nañ fa ñëw léegi émission bi. <laughs> fi rek tëddi rek. <laughs> guddi maa ngi nuyu aussi sunu yaay Ajaratu Ndeye Sufi Taal ah, borom Alpha Voyage di sunu yaay yu baax di koo xamante ne moom tamit noonu la ñu def ci biir xolam. jël ñu def ñu ay doom bëgguñu lool ah ba pare mën teraanga hmm? koo xamante ne macha allah ah, day jékki-jékki rek am nu mu def ak yow ah, te loolu dafa am solo ah, moom nag dafa xam fi mu bokk ba noppi xol bi yaatu. moo tax këram macha allah ñi nga xamante ne xam nañ ko xam nañ ne këram këru njaboot la hmm? maanaam këru yaay faal la donc suñu yaay jooju nga xamante ne di doom ci Thierno Mountaga Tall suñu papa. ajaratu Ndeye Sophie ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di kontaan ci moom ah nee naa leen képp koo xamante ne dangaa bëgg tukki bu laajte fan ngay jëndee billet dama ba ci moom mu jaay la billet wóor na assuré na muy sunu yaay borom Alpha Voyage ñu ngi koy nuyu bu baax a baax kontaan nañu alors Oumou euh, tey bu ñu ñëwee ci waxtaan bi li ñu war a waxtaanee tey bëri na maa ngi ko junj sànq rek ci wàllum gis maanaam xool seet te bi may waxu BRT bi boo defe naa sax seetu ko woon daa toog nii rek ñuy def émission bay waaj a tàggoo mu ne ma dinaa am lu may avertir nag ñi nga xam ñoom ñoo di waa réew mi ba jaar sax ci turu président Macky Sall ne ko yow laay waxal DRT bii balaa muy daw nangam nangam nangam vidéo boobu bu fekkee ne pare ngeen Issa bu fekkee Malick jox na la vidéo bi c'est bon d'accord ñu teg vidéo bi déglu ko balaa ñuy tàmbali waxtaan bi nañ ko def ci mala yi. Mm-hmm. chaque jour ma wax ko. Mm-hmm. déret ji nar jël ci nit ñi. nañ ko def ci mala yi te nag président de la république mi may dégg. Mm-hmm. gis naa BRT bi ñëw na ñu ngi koy essayer. balaa BRT bee daw. suñ ko mënee. gaar bu nekk nañ fa rey nag. sinon BRT bi deuxième ravage bi moo koy def. révélation de gis naa ñi ngi essayer BRT bi. suñ ko mënee. balaa BRT bi di daw. Mhm. gaar bu nekk nañ fa rey nag nag biñ fay rey du doon nag bu xonq du doon nag bu weex. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. nag biñ fay rey mooy nagu cereek soow yi. yi am couleur tupp tupp yu ñuul yeeg yu weex yi. ñu rey ko BRT bi daw Sénégal am jàmm. utal nañ ko yoon. waaye gis nga seytaane buy ñëw. barke Seydina Mohamed loo ko utal utal yoon dana fekk di mbaa ñu fekki ko. yàlla nañ ci yàlla musal. mooy li ma waxoon ci teer bii rek nee naa mm. teer bi du ma ci mës a man mm. maa ko wax man. Mm-hmm. dama koy assumer man du ma mës a dugg ci teer bi. daa dafa am loo ci gis. bis bëgguma jëyëb buy ñëw fekk ma ci biir man damaa ragal. Mm-hmm. yàlla nañ yàlla defal jàmm. amiin parce que gis na fii ñu def BRT. Mm-hmm. def fi teer bi. ay yooni jàmbur la. dëgg la. ndax dëkk bi. ku ne gis na léegi xale yi feebaru rab yi ni mu leen sonale. ku ne gis na léegi mag ñi paralysé ni mu leen yombee. xoolal malaise ni baree ci dëkk bi léegi. parce que dañoo yëkkati rab yi. yëkkati jinne yi. Mhm. amuñu fu ñu dëkk. Mhm. dañuy daw di dugg nit ñi. Mhm. di fàdd di faagaagal. nañ leen jóg ci suñu réew. balaa réew mi di jug ci ñun. wasalaam ba beneen yoon. mu ngi noonu loolu mooy vidéo bi nga xamante ne euh, maa ngi ko jëli semaine bii passé la ko euh, ban jour la tombé loon sax da taw sax jour boobu. waaw semaine passé la woon. Ah, mu nekk vidéo boo xamante ne bi nga ko waxee.

waaw le 24 août lañ ko lañ defoon na vidéo bi donc voilà mu nekk loo xamante ne euh, loolu mooy nekk question bu njëkk bi ummu mooy gis la wala seet la maanaam gis wala seet parce que mënoo tëb tëb rek wax ko noonu rek mosuñu la gis vaar nag ñu la doo gis vaar manaam lii mooy vaar nga wax dara waxoon naa ko après ñu indiwaatale na yaa ko waxoon te am na fii mooy vaar bu positif bi gis la wala seet la. man xaw ma lan la parce que boo seetloo bi may wax loolu. def nañ émission ba émission bi jeex. ba may tàggoo. ba may tàggoo. ci laa ko dagg wax la ko. à chaque fois dama koy wax euh, ñu may reye man li may wax du sama du samay wax. jinnee ma koy deey. li may defit du samay jëf. jinnee ma koy deey. fi may jëmit du sama jëmukaay. dañ ma fay yóbbu. tey bu fekkoon dag ma invité. Mhm. raye ñëpp ni man kese. Mhm. su ma warul ñëw du ma ñëw ñu bëggul ma ñëw du ma ñëw. Mhm. moo tax fu bari duñ ma fa gis. man fu dul tàntu naa Mohamed duma fa dem. ndax li may gis la. gis bi nag ak wax bi dafa yàgg. depuis ma am 12 ans. man dama doon gis ba boo ëmbee càpp ëmb ci sa biir bu ma jàkkaarloog yow dama koy gis. damay gis sa doom. ma koy wax. sama maam na ko yàlla yërëm daf ma doon dóor. su ma ŋaangee rek mu mbéj ma. ni ma noppil sa gémmiñ gu bon gi doo wax jàmm. li nga tax ñu tam ma nekk nag ku mën a wax te lu ma gis dama koy wax. te lu ma wax day mel ni balu fetal. dama lay li mës naa am benn anecdote may dem yaraax man sama yaay infirmière d'état la woon ci la retraité. mi ngi liggéeyee mu ngi doon liggéey ci hôpital bi nekk yaraax ci boo rombee armeel yi. may fay dem. ma dem bay ñëw jël kaar. Mhm. bi ma jëlee kaar bi ma ñëwee ba ci diggante ñaari station yu jàkkaarlooy mhm. dafa am benn daam. mu ngi boot doom. Mhm. jàpp ni ay séex. maa ngi si kaar bi def nii. dama jékki-jékki mel ni dañ ni ma femme bii taxaw avion bii di ñëw day jaar ci bopp doomam ci fi may yuuxoo naan ko xëccal xale bi ak fi xale bi di dawee ak fi avion bi di egg benn la rek ma yuuxu ci kaar bi ñu wàccee ma ma ni wéy gisoon naa ko mm-hmm. maa ngi ko ko doon pa dan ma ko wax mm-hmm. damay dem oto bi day romb rek ñun ma gis nga avion bi di ñëw day jaat bopp xale bi mm-hmm. may yuux di wax ndaw si pour mu téye xale bi rek avion bi des si man noonu la may dikkee noonu la may dikkee ñi ma jege xam la ci man loolu man damay xëy rek ne nit ki nangam ak nangam ak nangam dina am bala moo am vingt-quatre heures koy gis wala ma xëy rek ne nit ki yow gisal naa la nangam ak nangam bala moo am 24 heures da koy gis. loolu moo tax ma sañ. ba fu nit nekk ci àdduna soo ma woowee jox ma sa tur sa turu yaay. dama lay ñemee seetaal. man li gën a garaaw ci man man duma la wax ko gudd ki. du ma la wax ku xees ki du ma la wax ko ñuul ki. damay dugg ci say problème fond say problème wax la li ngay dund. wax la li paase wax la ñëwagul. loolu yàlla may na ma ko. kon nag dama naan alhamdulilah rabbil alamin ndaxte defaluma yàlla lu tax mu may ma loolu. Mhm. ñi ko xañ deful defuñu yàlla lu tax mu xañ leen ko. Mhm. kii dafa wax léegi benn wax. Mhm. mu ni maman bu ma dajee woon ak yow du ma ni seetkat nga. dama koy wax chaque fois samay interview ma ni man maa gën a bëgg lu baax ñëpp. du ma dof dofloo. du ma takki béjjén. du ma yori laar. du wax di xulleeku du ma tëggi dënnu duma ma tëggi taabal. di def ay lanti te ku ma du ma def lanti. du xeesal.

waxuma leen dara. mais man sama idée bopp la. Mm-hmm. nga say ongle ba mu wañu. def say sil ba bu ci weñ taxawee du wat mm-hmm. déggoo ma de. Mm-hmm. xeesal ba boo génnee ci naaj bi sa yaram bi dafi gàmb. man duma ko def. man su ma doon ñaan lu kat du li ma ñuul a tax de waaye bu ma doon ñaan lu kat am problème. dem gis koo xam ne na day ñaan yàlla. comporté woon noonu. kenn moomul kenn. kenn moomul kenn. Yves man damaa bëgg lépp lu ma wax doomu aadama. nga fekk ko ci man mhm. mbaa nga gis ko ci man mhm. moo tax chaque fois fu ma toll rek mhm. loolu moo may sonal na na la la mbir yi dikkee parce que tëbu tëbuloo tëb rek di yëngu ci wàllum seet ak di defaral nit ñi euh, di leen fajal seen aajo nan la la dikkee waaw Yves man dama dama am nee naa la sept ans commencé di wax dem ba am douze ans commencé di wax di wax di wax mais sama famille ñoma teunkoon ndax man sama wa keur papa. Mhm. ay saltige lañu. Mhm. sam papa bima jur lii may liggéey moom la liggéey ba génn aduna kéro ba muy génn àdduna dama dem diko séti diko mhm. taggu niko damay dem gambi ndax sama borom keur mo feebar. ma génn ba ci bunt mu woma nima yaangi dem way boy ñëwaat fi fekk. tax nga wax ko mu ku dem mak dem ku demul mak dem. mu bis dina ñëw ko tané nang ko dimbali. ku la wóolu bul ko war ku la yaakaar bu ko tas mhm. dama laa xam nag ndax fitu góor nga yor mhm. moo tax lépp doo ko jël waaye di nga jël loo xam ni di nga doon étoile plaire tiniin mhm. ndax yaa ngi dégg ma dem ci sama borom kër bi may ñibbisi sama dese papa moom may delloo dañ maa wone ma sa papa gaañu na ma ma ñibbisi may bañ nag di bañ ndax dama nekkoon nit koo xam dama tolloon jamono yu metti situation bu metti yaa ngi dégg bi nga demee gaañu na mais woowuñu la ne la gaañu na da nga ko ah, da nga ko gis waaw man dama xëy dama xëy man ak sama borom kër ñuy déglu tàgge rajo Sénégal ma déglu ñu tàgge sama papa fekk ci guddi gi dama ko doon naan sama bopp bi dafa mel dañ koy dóor marto ci suba ma tàgge ñu tàgge sama papa ma ne ko paa bi ñu tàgge ah, man de paa bi jaaxal na ma ak ni ñu ko waxee nii mu ne ma waaye nañ dem ngay déglu ay tàgge ñu dem ñëw borom kër gi nga xam ne fa la sama jëkkër dëkkoon ni waa Sénégal woote nañ boobu temps fixe waa Sénégal woote nañ nee na nga paak sa bagage suba lu mu teel teel na nga ñibbisee ma yuuxu ni sama jëkkër sama doom yi dee sa doom man sama am mhm. dee na ma sama am deewul mhm. ma ne ko kon dinaa xam lu xew Sénégal mhm. sama jëkkër génn dugg ci cabine bi boobu cabine moo am woo sama yaay sama yaay ni ko neexul ba neexul waaye papaam moo gaañu ñëw fekk man yëg naa ko ci sama yaram man xam naa ne am na luy ñëw parce mele boobu ma nii boobu lu naroon ñëw ci man dama koy yëg mais duma xam lan la léegi nag yàlla dogal ma ñibbisi bi ma ñëwee affaire bi sonal ma di ma topp su may dox day mel dafa am nit bu làng ak man mm-hmm. di ma wax mm-hmm. di ma wax di ma sonal mm-hmm. di ma sonal ma bañ ba benn jour ma tëdd ñu ni ma naa jóge fi ma dëkk boobu maa ngi dëkk Malika ñu ni ma jógeel fi nga dëkk nga dem dëkki booru ndox ma tëb ni sama borom kër man de dañ ma ni naa jóge fi ma dëkk dëkki booru ndox mu ne ma loolu nga gis man ka mu ne ma man de loo bëgg loolu laa bëgg jógeel fi nga dëkk ñu dëkki booru ndox ci laa ñëw ne wut Cambérène Cambérène Cambérène 2 laa mm-hmm. ma ñëw wut fa fekk na Cambérène 2 mm-hmm. daanaka fa laa defee sama lépp mm-hmm. parce que sama doom yëpp fa lañ juddoo après dama fa jóge woon dem Malika bi ma ñëwee kamboren 2 ma wut sama benn li li nga xam ne mat na ma dëkk waaye ma dëkk fa benn tisbaaru àjjuma sama taaw bu góor bi fekk ma may nelaw mu ni ma yaay may ma fukki dërëm ma dem ñëw sama dàll bi damay dem jumaa ma ne ko ma ma ne ko am a ma jox ko fukki dërëm mu bi mu demee sama beneen ki topp ci moom Mouhamed da ko topp bi ko Mouhamed toppee fi ma tëdd gam-gam rek mel ni dafa am lu ma mbéj. ni ma jugal Mouhamed dee na. fi ma ne jugal Mouhamed dee na may tëb rek daje sa xarit ki gi. waaw mu ne ma yaay ma ne ko naa mu ne ma Mouhamed dee na ma ko lu roy Mouhamed mun ma dafa accidenté. ma daw ñëw fekk ko mu banku ci tali bi. ma ñëw yëkkati sama doom ñu naan ma xaaral constat ma ne du ma xaar constat alhamdulilah laay wax daal daw dem hôpitalu Cambérène. Mhm. heureusement deewul. ma tëdd. ci même jour affaire bi yee ma mm-hmm. daal di may wax benn côté ci kër gi ma dëkk. Mm-hmm. dama naa fa dem su ma fa demee mu ne may da war a seet man ne luy seet mm-hmm. mu ne ma xamoo luy seet su ma la joxee li nga la ma la jox di nga xam luy seet. demal bërëb sàngam di nga fa fekk nangam est-ce que DJ Yves xam nga lu garaaw. man damay seete carte. carte yii nii comme yi tubaab yi di def. waaw man damay seete ndox. man damay seete petaaw. man damay seete seetu. man damay jàkkaarloog yow di la seetal. ndax yaa may dégg. bu baax mës naa koo dégg sax mu ne léeg-léeg client woo ko mu nekk ci otoom soxla moom. fi muy amee aar di seet sax. te du ko tey te du yor dara. waaw mooy li muy wax nii. waaw ma daal di dem. ci foofu mu ma wax ba ma demee ay carte laa fa fekk. ñoom ñoo la ko jox. waaw ma jël carte yi carte yi mel melokaan bu doy waar ma ne man mosumaa gis carte yi. Mhm. ma ñoo teg ko boobu temps télécaisse yi ñoo am xam nga li yàggul. dëgg ma ñëw teg ko ci kaw tele bi rek affaire bi affaire bi sifflé ma. Mhm. sama nopp ni ma teggil lii fi nga ko teg nga teg ko béréb sàngam. Mhm. ma teggi ko teg ko faa. le lendemain. ma yeewu mu ni ma demal béréb sàngam di fa fekk ay petaaw ma ni petaaw mhm. mu ni ma waaw ma ñëw sama fenêtre waañ mhm. fekk ñu tegal ma fa takku petaaw mhm. ma jël ma samay petaaw dañu jékki-jékki dem samay petaaw dañuy jékki-jékki fees dell layu bi samay petaaw dañuy jékki-jékki samay sët fa la ñuy jëlee xaalis bi ñuy jëndee ji seen ay goûter te duma ko fa def samay petaaw dañuy jékki-jékki doo fa gis dara ndax yaa ngi may dégg ma dem jël ko bi ma ko jëlee ñu wax ma ni may def wax ma ni ma koy gérer ma gérer ko bi ma ko gérer benn jour may tooñ sama benn xarit rek ma ni ko man mën naa xool seetu bi sax di la ci seetal mel ni dafa am éclat bu génn ci seetu bi wax ma li ma bëgg a wax ma continuer di utiliser lépp daal lu ñëw ci man rek yàllaa ma ko jox man ma marché jënd samay petaaw yàgg naa ko wax Mouhamed mii man fortaatuma samay layu mhm. man lépp lu ma am rek ndono laa ko amee lu ko waaw mhm. léegi nag yàlla dogal nag ma topp nag ndax man dama bëgg mës a bëgg yëfu cosaan mais boobu est-ce que yaa ngi ci kër sama borom kër sama borom kër xam na ma mhm. sama papa avant moo génn àdduna waxtaan naa sama borom kër ba wax ko man li ma nar a doon moo tax sama borom kër dara jaaxalu ko ci man démb dama toog man ne koy dama lay baalu àq mu ne ma tax nga may baalu àq ma ko man sëyu ma waaw ma ne ko man sëyu ma mu ne ma sëyuloo man ko déedéet sëyuma ndax kuy sëy du comporté woo comme man ni ma mel man sëyuma man Yves man bëgguma dara Yves man bëgguma dara bëgguma dara man naa liggéey sagal jaami yàlla yi taral sama njaboot bëgguma dara yaa ngi dégg oto bu rafet samay doom yee tax ma jënd ko or li ma ci am lakk jeexalu ko du ko takk sama néeg du tëdd ci lal ba kon xam nga kook sëyul waaye mission la boo xamante ni yàlla moom ma ko teg dama koy assumer parce que am na ñoo xamante ni bëgg nañu mel ni man dañuy dem di fay pour ñu di leen jàngal wala ñuy jël ay wérd te yàlla mayu leen ko képp ku taxaw ni maa jàngal taalibe Cheikh na seet wala maa ko jàngal faj wala maa ko jàndal ñaan yàlla na nga yëkkati sa loxo nga wax ko man sël ba suñu jonn yàlla tey amul benn sëriñ wala ñaankatu yàlla bu ma bootu ci ginnaawam bu dagg garab jotee man ak sama njaboot su dëbb garab jotee man ak sama njaboot su may faj man ak sama njaboot su may seet man ak sama njaboot su may tuuru man ak sama njaboot kon loolu sant naa ci yàlla bu baax ndaxte li tax ma recasé wu noonu jamono ji dafa nekk jamono joo xam ne doomu aadama lu la xamal wala mu dimbalee la ko dëgg la waxal la ko un mu waxal la ko dëgg te te te sutura dafa baax comme li ma wax à chaque fois ma ne ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñaankatu yàlla yi ñun ak médecin yi ñoo yam dañu war a yor téeméeri poche. Mhm. poche bu nekk ku ñëw ñu dugal fa sa soxla tëj ko kànnaare ko. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. man ñi jaar sama loxo bi ma defar leen bari na ñi jaar sama loxo bi ma jàppale leen bari na. mais duma toog ba ni diw mi maa ko jàppale. parce que yàlla bëggul loolu. yàlla bëggul kuy damm. du ma toog ba ni diw mi maa ko defar. yàlla bëggul loolu. te dama am nag benn loo xam ne dama ko gëm bu ma kenn ree xam nga philosophie lañ koy xam luñ koy wax. yaa ngi dégg dama am idée boo xam ne dama ne man malade. bu duggee sama kër feebar génnaat ak man ma xàcc xam ne man santatuma cin loolu nag xam naa bu soxla wu duggee sama kër feebar génn fa ak feebar ma xam ne man xàcc ma xàcc xam ne santatuma tin man sama kër kenn du jàppoo malade di ko fa dugal boo AVC woon sax bay kadd kadd boo ñëwee dañ lay bàyyi mm-hmm. nga dox ñëw wuy si ma mm-hmm. barke Seydina Mohamed ci tele laay wax mm-hmm. ndax yaa ngi may dégg kon am na yoo xam ni bërigo bu fees du yëngatu bërigo bu deful dara rek mooy ranjax ranjaxe d'accord loolu xam naa ne bokkul ci li la koy laajte émission yi man laaj ñii parce dugg naa un ci famille bi am nga sa diggante sa borom kër ah, d'accord léegi umu en attendant euh, doxalal su ko defee ñu ñëw ci waxtaan bi allah Yves invité nga de tey moom invité nga moma dañu gis boy wax yaangi andak al ma ngi lay xol sank ba tay ni ngay waxtani yaangi ki moma wacce mohammed moma wacce Mohamed ma allah Mohamed moo def ni uh, donc fi may ñew ak yow moma uh, xam-xam bi mom kenn naatable wu amuñu ci sikk sànq macha allah naturel nga yeer nga ñu tamit ci ñew ndax nit ñi dama xam dara mu tax nga def ay lanti lu nekk nga posé ko ci sa yaram ngir bëgg a nit ñi donc xam-xam. ci xel lay nekk day ñëw naturel nga wane sa naturel ah. te dégg naa ba nga koy am bëreegul woon nit ñi daawuñu woon fësal naka nga gisee jamono gi tey ku jóg ne damay seet ku jóg ne yor naa xam-xam ñëpp dugg ci mariirandoo bi bëri ci ut xaalis donc euh, naka nga ko gisee i wax na ko ut xaalis parce man am na ku ñëw si man ni ma taalibe Cheikh na ma ni ko naa mu ni ma yow de lijjantiku nga yàgg na ma ni ko lu tax nga wax ko mu ni ma euh, euh, Sénégal léegi à part seetkat seetkat ak jaaykatu dorog ñoo fi ëpp xaalis wax ma loolu ma ni ko macha allah sant yàlla ma ni ko am xaalis neex na waaye am xaalis bu leew moo dàq xam nga seet gi léegi gars yi dañ koo def buntu dóorukaay ñaan gi léegi gars yi dañ koo def buntu dóorukaay ba moo tax ku jug layoom teg lo ci gis ku jek baye man gis na set kat bu togon ci internet bi nan may borom rap yi may borom jinne mhm. barki dem dama ko gis mu dug avion di dem dubai ah di jeun di jeun di marchandise mais maman benen dañ ci defaro benen bi ci wa euh dañu gis euh jigen ñu bari dañ naan bu ñuy set léeg day dañuy tomber ak bis yo xam du sen bis mhm. comprendre nga ñu comporto yenn comportement yi seen xol di xat ak yooyu. yi ce que loolu rek waaw ce que réalité la ci seet man ku ñëw nit ki gëdd la wala yuuxu am na mu comporté woon. man ku ñëw ci man bala ma am seetal sa problème danga koy fàtte danaa la dalal danaa la waxtaanal danaa kaf ak yow danaa rey ak yow ndax yaa ngi may dégg ba sa problème sax danga koy fàtte man ku ñëw ci man nit day ñëw si man sax ni ma mama taalibe Cheikh na dama bëgg nga seetal ma lii lii lii mooy sama problème ma ne ko xoolal. yoruma xaalis ma ne ko xoolal xaalis mooy dernier nañu wut ndam xam nga lu ma bëgg man damay am bés man damay am bés mais bu ma amee bés xam naa nu may gérer sama bopp du ma toroxal kenn xam naa nu may gérer sama bopp parce que nit ku ne duma am bés doo nit nitu naturel ku xamul dara sax dafay am bés day xëy benn jour xolam du naqari mais la naqari sa xol ñi lay woo yaakaar na defuñu la ko la naqari sa xol ñi nga dëkkal defuñu la ko nit dëgg bala ngay doon nit nga am loola naqari nga maîtriser ko mën a composé ak ñi nga nekkal mm-hmm. man lu ma am am naqar damay composé ak ñi ma nekkal lu ma am am bànneex damay composé ak ma nekkal man sama sama bés xam nga ku koy xam kee waaw su ma meree su ma su ma tàngee mm-hmm. moom bu ma nuyoo rek day xam ne man mer naa parce que salaamaaleykum rek ñu baal ma ci kàddu mooy nodd naa mm-hmm. lewetal ba mu lewet hmm. mu ne ma ah sara bi daa ñëw hmm. baal ma daal di génn daal di rakkee magi rab yi ñëw na de hmm. nañ leen def attention yenn saa yi mu ne ah sara bi daa ñëw maa la ëpp rab xaaral ma ñëw <laughs> lekkal ma ne ko duma ma lekk naanal ma ne ko du ma mu di nga lekk di nga naan boo feebaree ñuy sonn xam nga moom bu ma des fois bu ma xadaree daf may gën a xadar su ma gënee xadar rek man damay daal di dal yaa ngi dégg des fois nag su ma xadaree mu xam ne bu ma xad moom bu xadaree ma xadar euh, dina am nu mu demee dafay préféré bàyyi ma tëj ma ci néeg bi dem yoonam comprendre moo tax nit ku nekk am nga ku lay dalal moom moom moom may dalal am na mag am na rakk bu jigéen yu toll ni ñoom mais ñooñu sax dañoo nangu xam ne moom moom moo may dalal yaa ngi dégg gis nga doomu aadama dafa am noo xam ne da nga war a comporté woon Yves mii bu jaaxlee gis ma mama taalibe Cheikh na exposé boppam mu ne naa daw ci mama taalibe Cheikh na su ñëwee xelam dafa war a dal ba bu tëddee mu nelaw mais bu ñëwee nga tiital ko yóbbu ko fitam yóbbu fitam ba bu doon jaay ay lamam sax wala muy jaay yéram sax da koy jaay jox la ko te fekk li nga koy wax dara amu ci dëgg la benn nit da ngay naturel te nit lu mënta am da ngay jiital yàlla ci sa biir bàmmeel ndax gis nga ma yi alal ji dafa neex lool mais bu ñu deewee dañ ko fi bàyyi te gis nga boo deewee juróom-ñaari mètre percale yi lay topp nga defet dangaa perte am nga bénéfice ndax ba nga juddoo indi ko woon kon nag boo toppee alal ji ba tax ngay def naka sudul noonu man de nee naa bañu ma ko ma waxal lu bon de waaye danga ma koo sarax ndax nit di nga ko gis sax mu taxaw du la neex nga waxal ko lu bon mm-hmm. wala nga gis ko mu taxaw du la neex nga sosal ko lu bon mm-hmm. yaa ngi dégg waaye man ci sama jëmi bopp damay daw sama diggante ak sama moroomu doomu aadama ba sës macha allah Mouhamed ah. jàkka jàngoo ku mën noonu noonu jackpot bi nga. jackpot bi laa téye tey non Yves doo nit quoi macha <laughs> sax man moom def na lépp. waay cest dama wax sànq sama début wax ma ni soxna Oumou. Mm-hmm. ni euh, képp ku doon seetaan guddi gi tey mm-hmm. moom mooy. mbir mi. Mm-hmm. man dama ne sax ma mënoon nga bàyyi ba après màggal gi ndax nit ñi gën a teewlu affaire bi. waaye moom bu génnee gars yi dañ koy xaar parce que xam nañu ko. Euh, li may njëkk a dëggal mooy avant may ñëw ci wàllu ñaankat yi tax ñu bari. mooy dafa wax sànq wax ci wàllu paj avant sax seet man ñëw naa këram fekk fa malaat boo xam ne mi ngi jugee jugeewul gàll ñu ngi jugee États-Unis su ma juumul États-Unis waaw mu ñëw këram feebar bu mu amee woon bu desoon foofu da doon ñàkk bakkanam malgré que yàlla moo yoon bakkanam comme li mu doon wax sànq ci wàllu faj ma dama koy dëgg ndax ku ñu xàq wala kaana ma doon mhm. booy wax waxal dëgg te yàlla tax mu feebaree këram la ko téye non seulement man bi ma jël ma ne ko waa taal bi Cheikh na yow kii da fay. waaw ma ne ko mais a li ma la fay defaat nga lu ëpp loolu ci moom. biñ koy indi avion spécial lañ ko jëlal mhm. këram la ko téye faj ko. Mhm. ba mu wér mu yëkkati oto may ko fa la maanaam ki mu faj. ki mu faj. koo ko yëkkati après oto. feebar laa amee woon boo xam ne du ma ko tudd ci télévision. feebar bi mu amee woon bi mu bu desoon foofu da doon ñàkk bakkan. Mhm. fàtte woon na ko sax. bi muy wax sama xel dem ci. daf ko faj ba mu wér. mu yëkkati oto may ko. te du kooku bëri na ci ñoo xam ni tey jaar nañu këram mu faj leen. te yàlla tax mais sama côté fi mu doon ñëwee mooy ci côté sëriñ si. sànq dafa ñëwit sànq dugg ci wàllum seet. dama gis ni léegi seet yombul. parce que laaj nit ki vie ba mu wax la ko après nga jaarat ci. dafa bari. te moom mun naa wax ni mooy sel personne boo xam ne li ma gis si moom. mooy seet.

nga ñëw leeral ci lu maanaam li tax léegi. di wax rek nii te wax nii rek te leer na waaw si parce que am na ñoo xam ne nag moom dañ lay tiim di wax mu leer na la yow liñ lay wax yow ñun xam la mais maanaam ñi nga xam ni da ngay leen ni liñ lay wax dara ci dëkk. Mhm. nit ki jël lépp lu amoon jox la ko te leer la yow. question di la tontu. di la wax mooy seet c'est ça. yaa leen jox li nga war a dégg yow. Mhm. ñu la waa yow. Mhm. Euh, am de. nga ne si am na koy àndal waaw si am na koy àndal. parce <laughs> <laughs> xam nga Mohamed maa ngi ñëw ci loolu ngelaw li euh, sa digg ginnaaw gi li ko dalee sa digg ginnaaw jàpp loos bi dafa mel ni day métti de. dafa mel ni man fi ma ni mi dafa mel nga ni waaw mi ngi métti kay. dafa mel su ñuul si nekkoon si kii yow. di nga ñu euh, <laughs> moom xam na ma du ma fàtte du fàtte macha allah du ma fàtte. Mm-hmm. Mouhamed. seetkat dëgg bu la nee luy sa problème. Mm-hmm. annulé sa xaalis. bu dee dugal waaw boo ko ne sarax sarax ko ko. Mm-hmm. boo ko mënul sarax annulé ko boo ko dugalagul bu ko dugal Set ka deug do la laaj lu sa problème man xam nga luma soxla ci set sa tour sa tour yaay ma wax la li ma lay wax ta sama set neena duma la ni gudd duma la ni gatt duma la ni ñuul duma yang la ni wéx dama la wax say problème yi ngay dund ngay dama la wax say problème yi ngay dund ngay ndax ya may deg gis nga da ngay dem ci kat. niko salam salaamaaleykum man dama bëggoon nga sétal ma mun la nangam lay sété nga duggal ko mu ni nga wax say at nga wax wala sa turu yaay nga wax mun la luy sa problème. waaw luy sa problème nga ni ko man de sama waji ma doon andal te ma digon mariage dem mu daan ne da ngay yaakaar muy tas. Hmm. jaar ca lang ko. deug la. pardon lang ko wax répéter la ko. ya ngi deg motax damay conseiller ñi nga xamne dañuy sétlu parce que cette force dañ koy def. Hmm. ndax mam ye ko fi bayyi ñi nga dañuy sétlu salam alaykum wa alaykum assalam dama bëgg nga sétal ma ñaata ngay sété nangam laay sété fuma koy def def ko béréb sangam dugal na ko sa tour sa tour yaay wala say at wala jëlal ben numéro wala linggal nga jël ni tek bu la nangam bi ndax dafa am gan ko yaa may sétal ma mu sétal la wax la lamu gis ndax sét dalay wax ñett muy ligay dund lu passé ak lu ñowagul ndax yaang may dégg. Mm. sét dalay wax li ngay dund actuel lu passé ak lu ñowagul ñu nane sa fi du tok ben place. xam nga. fit moom day jàppale ci biir dama la dañ du toog benn place. dama la ni. yow sa fi sama TikTok. ma gis benn xale boo xamante ni amul sax saison mu ngi toog di def ay révélation naan màggal gi accident bi dina bëri lii laa xale bu ndaw ñu dëkk micro moom it danga ma danga ma danga ma mës a wax benn affaire boo xam dafa ma marqué. moom Mohamed daf ma mës a mu ne ma taalibi Cheikh na ma ne ko ah, mu ne ma xam nga lu ma jaaxal ci ñi naan dañuy seet soo leen di jël premier vidéo ci basan nga leen di fekk néeg bu farox bu xeeñ nga jël leen premier vidéo deuxième vidéo boo demee fekk leen ñu toog ci salon royal mu leen la ne ñooñu liggéey taxu leen Mohamed man du ma fayeeku liggéey non man du ma fayeeku liggéey man dama lay wax ni la man Yves tey boo ñëwoon ci man indi sa problème bala ma lay defal dara dama lay seetal danga may fay li may seetee ma seetal la yaa ngi dégg xaaral ma yeggale danga may fay li may seetee ma seetal la wax la say sarax nga jënd indi su fekkee nekkoo fi nga jox sa mboq mu fi nekk mu jënd indi ko mm-hmm. wala nga yónnee ma ma jënd defal la photo ko envoyé la mm-hmm. liggéeyal la fexe nga jot ci ba nga gis képp ku ma yor sa liggéey te yónneewu ma la ko rek damaa am GP bu tarde wala ma ñàkk sa numéro te su ma ñàkkee sa numéro xam nga sama téléphone dafa bari ay données. su ma bu ma amee kenn ku ma faay rek bu ma toogaat def vidéo dama koy wax. pour kooku mën ma retrouver waat. yaa ngi dégg mais nag suñu liggéey bi lépp a ngi ci biir. lépp di nga tase koo xam ne day ñëw di xool ndax yow xam nga am xamuloo. waaw di nga tase koo xam ne dañ koo yabal. Hmm. yaa ngi may dégg. nga am sa benn rival bu mu yabal ko yàq. Mhm. yaa daje koo xamante ni gëmul kenn. Mm. day ñëw noonu rek. Mm. Mm. te day def lépp nag lu mu war a def. Mm-hmm. dina seetlu fay. Mm-hmm. dina yónnee saraxam. Mm-hmm. dinga ko ko defal mais gëmul dara. gëmul dara dara dara dara dara dara dara yow xam nga li ma lay wax. am na benn ndaw soo xam ne dëkk fu mu nekkoon Londres wala Canada. Euh, suwet. suwet seetlu na. fay seetam. yónnee ay saraxam. jënd garabu jabet bi ci man. Mm-hmm. yaa ngi dégg. te gëmul dara. da ko doon def noonu rek. da ko doon def noonu rek. maanaam am na ñoo xam ne da nga jàpp ni kenn mënu leen ñaanal ci àdduna am na ñoo xam ne kenn mënu leen a ñaanal ci àdduna bu xaaba bu gën a mag mënoo leen a ñaanal hmm. ndax lool la sa maam naan kuy dàqeek sam xel foo nëbbu dalay të ndax boo jëlee ñëpp def leen trian hmm. jël ñëpp daf leen nit ku bon hmm. doo gis ku la defal la te loolu moo fi bëri te looloo fi bëri ak yàqante bi ah soo gisee su ma defee vidéo tag Mouhamed tëjal vidéo bi if tëjal vidéo mhm. am na ñoo xam dañ lay suivre uniquement pour di la yàq. dëgg la créer ay faux compte. mais mhm. sa micro euh, mhm. li nga wax dafa am solo ci côté yàkkante bi. ci loolu laay ñëw. parce que da ngay xool surtout ñun jigéen ñi ku ci ñëw. ci euh, comme seen genre yi ñi ci bëri yàq leen di ndax comme par exemple ndax nit dina ci yow expliquer la dañ ma def nangam dañ ma def nangam ma borom rek fen hmm. intention rek nit hmm. aussi en tant que jigéen métier bi dafay metti uh-huh. ndax du am ñeneen ñu lay hmm. pour bëgg la daaneel wax nga ko mais waxuma sax ci côté client yi di di fexe pour bëgg la daal kuy def comme li ngay def. waaw dinaa la wax anecdote bu graaw li nga wax laa lay sa premier question laay tontu dama teel a instauré ci nit ñi ku bëgg lu bon bul ñëw ci man dama ko teel a ci nit ñi man kenn du ma liggéey loolu bon ndax dégg nga ma. bi première question bi. deuxième question bi mooy man fexeel nañ ma fi maag Mouhamed mii boole ñu benn kàmb yeew ñu ma gumba Mouhamed accidenté tànkam damm. Hmm? waaw dund ngeen fi loolu yéen ñaar maag moom mi kii maag moom cajak soow la mhm. yëngal naan wala yëngal tuur mhm. moo tax ñu boole ñu mhm. ndax yaa ngi may dégg lu garaaw laa lay wax daf ma defal interview dem jël benn seetkat defal ko interview seetkat bi interview am yëpp man la ci waxal di ma tëkku mais indirectement wala wala da ngay xam ni man lay waxal dafa génn ci interview ba rek woo ma ne ma Cheikh na man ne ko naa mënuma diw laa doon defal vidéo yow la doon waxal musuma la wax lii mais taalibe Cheikh na tiit naa de nañ jug mi ngi ni toog ma ne ko Mouhamed lu jógewul ci yàlla fi la ñuy bàyyi mu yéeg scooter am <laughs> doon dem daanu tànk bi fii la tam mu tel te accident bi li tax ma di ko dëggal mooy du oto bu ma sax yenu de am nit laa doon moytu am xale daanu tànk bi damm daanu tànk bi damm tel ma xëy sama bopp di metti ma gumba hmm. ma woo ko ba mu wuyu ma ma ne ko Mouhamed mun maa man ko ki ñuy fexeel day duñ ko def dara de waaye du ko jik nga yeew gisatoo. gisatuma ma fatuus presque deux mois mu ngi nii ma ñàkk ci alal ju bari amul fu ma demul. tubaab yi damaa dem façon scanner bu dul scanner yu junne defal nañ ma ko ñu ni gisuñu dara. scanner bu dul scanner yu junne moo tax xol la yàlla di fay xam nga ku ma faj. Mm-hmm. sëñ Babacar. Ah. Sidi Faagee Demba ma ci Jawaar. Hmm. moma fajj sa talibé Cheikh na Cheikh Saad nan la nan la lolu aussi bëgg naa taxaw. borom boné carré bobu mom bobu lo wax ci mom waw damay ñëw ci télé lay wax. Mhm. dugg internet. wax naa ko waxati ko. Mhm. dama teud ba guddi. Mhm. ma gën teuduma ba guddi dama fébar fébar bobu bima dalé dama amé bir bu metti ñu entraînement. ma génn fima tok ci takusan bi mirmir tunis ma gis seigne babakar ci dégère ci benn biir benn biir mbarka ndox mm-hmm. maa ngi ànd ak sama benn xarit man ko dama bëgg a naan mun ma demal fee nga naan ndox la mm-hmm. ma ñëw def ni ni ko sëñ Babacar moo fi nekk mu ne ma naanal nga ñaan sa soxla mm-hmm. ma naan ñaan sama soxla raay sama biir dem ñu teg ci 15 jours ma gént sëñ Babacar ci kaw asamaan ma ànd ak sama doom jee ma gis xale bu góor ak xale bu jigéen ñu naan mi ngi nii mi ngi nii ma ni leen yéen lii lan la ñu ne ma sëñ Babacar man leen yéen a mën a fen sëñ Babacar ci ko asamaan mhm. ñu ne ma meer xoola ma xool ak asamaan si ubbeeku ma jàkkaarlu sëñ Babacar ci mhm. ma yuuxu daal ni laa ilaha illallah gis naa sëñ Babacar ci kaw asamaan mhm. ma dem ñu teg ci semaine sama bëdi di métti sama nijaay ni ma neewoon naa la nga dem Tiwaawoon ma gumba ma ne nijaay kon damay dem Tiwaawoon bi ma demee Tiwaawoon ci corona bi fekk sëñ Bay si tëj avant maa dem Tiwaawoon avant maa dem Tiwaawoon dama tëddugg dama gént muy taw taw bu métti ma ni sama jànq bi xob yi may liggéeyee nañ ko génne parce que day indi ay yuul ci kër gi bi mu indee plaatu xob bi rek plaatu xob bi dëpp ci gént gi bi mu dëppoo ma dippar ñu ko rek mu dippar ñu ko ci photo sëñ Babacar mu bind allah di set suuf yooyu noonu di nekk ci xob yi def far nii ci côté bi bind allah di set rek may yuuxu ni woy sëñ Babacar wanati na ma boppam si gént gi ma gis naaxu nit di dox ci taw bi di jikkat di ñew ci man nan allah allah allah allah sama nijaay sama rakku yaay mo leen jité mu ñew ma daal ni ko yow ma lu lutax nga indil ma ñi mu ni ma yow da nga bëgg jikar motax ma ñi lañuy ñuy la may joy ci gënt gi jël mbusu beñe bi ma yoron benn mbusu beñe di ciopati diko jox lu mat 1000 personnes motax ba légui sama kër bo fa ñëwé muy guddi muy bëccëg plateau beñe baa ci ci table à manger dama am traiteur bu may beñe spécial ma wo sama nijaay wax ko mu ni ma nañ dem tiwaawoon bi ñuy dem taawoon gisuma dañ ma omat dugal ma ci sama nijaay sama yaay sama boroom kër yaa ngi dégg ñu daal di dem bi ñu demee taawoon ma ñëw ñu fekk sëñ bay si tëj bi sëñ bay si tëjee ma toog paa bi nekk ci rawdu bi ni toogal fi nga ñaan ma toog ci bunt bi julli ñaari ràkka gis bi ma jullee ñaari ràkka ba toog dafa mel ni sama baaraamu sànq lañ bi lañ doon xëcc ndox mu tàng jër ci génn ndox mu tàng jër may jooy te xaw ma lu may jooy loo barke Seydina Mohamed ak yàlla bu ma gisanteeg yonent bi bi ma jógee sama yaay nii la doon des sama yére bi di ko wañ gis na bi ñu ñëwee Njaasaan ma ni sama chauffeur may ma ma jënd layu sama yaay ni ma fooy jëndee layu ma ni ko fii sama yaay ni ma dangaa gis ma ni ko maa ngi gis mm. sama yaay ni chauffeur bi droiteel chauffeur bi droité mu ne ma comme yaa ngi gis wàccal ma ni tëll bunt bi wàcc ni ndaw si layu bee ñaata sama yaay dafa wàcc kàbbat ci digg tali bi julli ni alhamdulilah sama bëtu doom yi ñëwaat na ma jënd sama layu lay boobu ba tey moom lay pettaawee moo tax man la sëñ Babacar moo ma faj dama koy wax nag tarixa xaadir yaay yàlla daf ma ko jalis ndax dama juddu fekk suñu famille yëpp nekk ay xaadir ma nekkul tuuti di waatee Cheikh na Cheikh Saad bu sama maam di gàmmu ji di jàpp sama loxo ba nannal ma ci tariixa xaadir yaa mhm. mais su ma doonul woon xaadir tijaan lay doon mhm. te ni ma doonee xaadir yi damay sargal tijaan yi mhm. ndax yaa ngi may dégg lépp benn la gis nga man li may déglu jikaru sëñ ëpp li may déglu jikaru Cheikh na Cheikh Saad bu abi te yaakaaruma ku du Cheikh na Cheikh Saad bu ku du Cheikh na Cheikh Saad bu bëgguma ku du Cheikh na Cheikh Saad bu topp ku du Cheikh na Cheikh Saad bu mais sëñ Babacar dafa bok ci man luma ko ñaan mu may mako ko lu ko ñaan mu may mako motax mm-hmm. manila mbiri ku ko man la ku koy jëm bari ko bu fess du yëngatu eh, eh, moy euh, mm-hmm. limu wax dafa ñëw ci benen facette bo xamni manam ci walu sax mm-hmm. dama gis ci mom en général buy faral di liggéey nit su fekke ni da koy jaral mu genn or Ndakaaru parce que Dakar la dekk day tal auto dem ci àll bi dama ci joxe benn anecdote ci wàllu sport parce que foofu danañ ci dugg wàllu wàllu football mhm. wàllu sport dafa am lu ko ci yàlla may mhm. joueurs yu bëri signé nañu contrat mhm. ñi siiw di leen seetaan ci yenn club yi ci loxoom la jaar et am benn footballeur boo xam ne dafa mës a am benn problème boo xam ni xam nga des fois joueurs yi duñ takk fii parce que léeg-léeg am na ci ñoo xam ne nasaraan yi la ñuy takk foofu dëgg la léegi su ko defee des fois gis nga jëlee ay joueurs yu bëri dañ leen di jiñ ay violons yu bi bi ko jiiñee loolu jabar ji indil ko problème ñu jëflanteeg moom ci wàllu. te la ci joueur bi Sénégal la. du ko jaar ci tur bi mais ñëpp xam nañ ko. Mm. sinon fii fii ma actuellement mi ngi football mi ngi continué mm. mais ginnaaw yàlla ak yonent bi ak wasinaam. Mm-hmm. ci moom laa gisee mu déplacé wu. Mm-hmm. laalu ci dërëm. ci wàllu sarax laa lay wax de. Mm-hmm. taal otoom dugg ci àll bi def fa ay fan liggéey li muy liggéey ñëw avant mi ñëw mbir mi sotti na. te boobu booy bi am na problème bañ téye ko parce que foofu buñ la jigéen indi la problème lay tëj balaa dara di xew balaa dara di xew da dem fanaani yàq sa carrière ñaareel bi mooy ci wàllu fanaani boobu mhm. bëri na ci ay résultats yu ci am yoo xam ni kuñ ma sa téye ci wàllu kaso ñett fan nag la la wax bu fekkee ni dépassé wul ñett fan mhm. doo fa toog mu ngi nii mhm. parce que léeg-léeg danaan la jox ma sa ñett sa su ma juumul sa peeru dàllu carax boo xam ne moom nga doon sol ci wàllu yoon waxul nag ku dëng de ku dem def lu la neex def lu neex déedéet loolu yëpp ay résultats ku ñu tooñ daal maanaam ku ñu tooñ wala hmm. njuum te dugal la foofu. voilà c'est ça loolu yëpp ay résultats yoo xam ni hmm. da koy def ñu gis preuve beneen bi ci wàllu léeg nga dégg ñu naan la diw boroom jaaro bi borom lam bi borom nangam ci moom laa njëkkee gis hmm. mu liggéey jaaro ci wàllu góor. ci moom laa njëkkee gis muy liggéeyam ci wàllu jigéen dama daan ñëw toog këram ni gis ko mu toog naaxu ci moom laa njëkkee sax GP. damay xaar GP bi ñëw wala sama livre bi ñëw ci mu la ko ni mu wala manam mom dafa yag def preuve gis nga ci Yves il faut ñu wax léegi man sama problème xam lan la manam lan mo tax léegi ñu bari umu mu ngi koy wax léegi léegi dama ipi ndaw ñi rek la ci gis xam nga leeg ñu naan xam-xam ndaw da koy am léeg-léeg ndaw xam lo xam ni sax ma xamu ko mais attends léegi dañ ci gis ño xam ni daf lay leer ba leer ni ñi ay naxaatekat lañu du ma wax arnak ay naxata kat lañu daf lay leen liñ lay wax dara du ci deug waxna ko léegi da ngay gis ko xam ni day lal si jaade ci négam 5 jours ou 10 jours nga fekk appartement. meublé meublé mu yor ay salon 5 millions. important. tamit. Il dem important. meublé. faut recevoir. Mhm. seeni important. pour mais dëkkuñ ci meublé bi. Talib Chana un xam ci loolu. Tu xam nga jamono important. dafa fi nga lu def sa que mhm. kenn deful kenn dara. Mhm. te gis nga nit ñi nañ gi mi. dafa métier mi nga sans frontière xam nga métier sans frontière mooy suñu métier bi lu ci neex waay def. mooy kenn moomu ko daal. kenn moomu ko. lu ci neex waay def. Mhm. waaye nit ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ci sëriñ yi ñoom ñoo war a nekk nit Mohamed. Mhm. ndaxte léegi dem man dem naa ba dégg sax am na ku ñëw sama kër informé na ma ne xale yu góor sëriñ yi léegi benn link la ñu def. am na fu ñuy restaurant la ñuy toog waaw link la. waaw waaw loolu tam dégg kenn benn restaurant la ñuy toog. kii day woo kii jox la numéro bi na la woowal kii mais est-ce que kii seet war naa faj. Ah. ñëw nga ci point bu sensible nag. seet ak faj bokkul ba tey. nit di nga mën a seet lool te doo mën a faj. Hmm. nit di nga mën a faj lool te doo mën a seet. Hmm. nit di nga mën a seet mën a faj te doo mën a génnee sarax. Hmm. la ilaha illallah. waaw. ndaxte sarax dafa nekk loo xam ni. dafa yéeme ci doomu aadama. lu sensible la lu sensible la. mën nga digal ni sarax boo xamante ne mën nga digal ni sarax xamante ne dafay daf daf koy sax dofloo. am ñoo xamante ne ci wàllu sarax boobu noonu ngay woo nit kuy ñaan yàlla mu génne loola sarax boobu mu ngi def nga woo keneen mu ne la boo génnee mbuusu ndox wala butéelu nangam sa faj faju nga def loolu sa aajo faju. Mm-hmm. gis naa ko laaj benn nit Amérique soxna Oumou. Mm-hmm. ci wàllu papier. 7 millions. ñu ko na ma loolu. mu ci sarax yi. waaw sarax dafa doon lu yéeme. man nag wax dëgg yàlla sant naa yàlla j'ai touché du bois. man damaa mën a seet. damaa mën a génne sarax. damaa mën a ñaan. waaw sant yàlla day niroog sant yàlla day niroog tiitaru. alhamdulilah rabbil alamin laf jat loolu yàlla moo ma ko may. Yves man sama xam-xam. man damaa yéem nit ñi ñoo koy wax waaye du man man man man damaa xeeb sama bopp bërki démb sama géwél bi may àndal du sama géwél sax sama frère mm-hmm. Malick Mbaye benn rakk Ablaye mbay peex fu ma waay gis-gis ko fa Malick Mugaat Mugaat géwélu na bi géwélu na bi moo ñoo naroon ànd mooy sama communicateur ku neex a ngi noonu yaa ngi dégg léegi ñu daal di mu daal di ñëw sama kër naaj bu tàng man ko loo fi wut mu ne ma dama ñëw pour ñu waxtaan man ko lu ñëw daal mu ne ma taal bi na bàyyi sa bopp bi nga xeeb man ko tax mu ne ma dangaa xeeb sa bopp te yow mm. àdduna yëpp lay bàyyi xel mu ne ma damaa dem ci béréb ñu teral ma ngir sa jëmm mm-hmm. mu ni ma loolu rek ma xam ne kon taalibe Cheikh na mi ngi marqué empreinte am mm-hmm. mu ne ma bul xeeb sa bopp ma ne ko Malick man doonu ma dara mm-hmm. man duma dara duma dara doonu ma dara lan la lan la nit ñi di coow mu ne ma taalibe Cheikh na xam nga lu ma la bëgg a yëgal defal sa bopp bi ndox loolu yàlla lay doon moo lay won ne mbir bu naturel doo ko diisal doo ko xëcc doo ko xëcc doo ko doo ko diisal mhm. man li ma doon xaw ma ko nit ñi ñoo koy wax man li ma ñor mooy ku ñëw ci man ma jëflanteeg yow gis résultat man loolu moo ma ñor d'accord yaa ngi dégg tey ci ci yéen xam nga ñu ngi wax côté sëriñ su ndaw si ñu bees ni ñi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi di ko lëmbe mhm. di dóor surtout yow. Mm, xam naa xam naa leen nag. <laughs> je vous ai à xam naa leen te xam nañ ne xam nga leen. te xam naa leen. Mm-hmm. te maa ngi si ñuy def. Mm, te maa ngi jot ay retour mm-hmm. léeg-léeg ñu def dara nit. Mm-hmm. kooku woo ma ne ma diw. def na ma nangam ak nangam ak nangam. loolu dafa yàgg ci ñoom. maa ngi maa ngi ñun xamante nañu. bi ci côté jigéen ñi aussi ñoom. aussi gis nañ benn rivalité buy am da gis nit toog ci plateau nga xam ne kii kii lay wax ku nekk di xëcc sa côté kii di ñoddi fii kii di di fii te loolu bokk na ci li nga xamante ne tey après ñii ñëw di ñaanlu si parfois mën nañu réer mm. tant que ñëw ñu ba ba mos la dañu xam yaay kat mm. loolu si yéen a koy dund mooy rivalité bi ci côté góor ñi parce que des fois nga seetkat bu góor bu toog naan ma ma maa mën maay le roi kenn ndax commencé man dañu naa kooku oto bu mu dawal sax mu ne am ko ku mën seet da ngay am oto. li ngay def dalay lay wóor koo ci fayee ko mu fay la mu gis résultat waaye nga toog di créer ay scénario di wax te kenn newul kenn waxu la yow munoo. Hmm. xam nga toog naan maa mën te kenn waxula la munoo mooy yaa ngi tooñ sa bopp. yow defal rek. xam nga da da ngay seet. wala wax dara mu am nga yow fëgg na waxoon naa leen nii waaw di fëgg sa dënn. <laughs> après tegaat ci quelques semaine ñu vaar la vaar bu bon. nga wax loo xamante ne amul dafa ne noo léeg-léeg damay gis waaye dañ may yàqal li may gis xam ñu ngi koy dund damay gis waaye xam ku toog fee di ma yàqal ku la yàqal xam nga xam na ku fi ni damay xarit ci booba tey la fay la fay xam nga Yves xam nga Yves uh-huh. mm-hmm. jigéen ñi dañu xaw a yéeme ñun jigéen ñi xaw a yéeme dama koy commencé ci sama bopp mais man nag yàlla daf ma suuf turaal ba man awma xolu rivalante mm-hmm. ndax yang may dégg man awma ko man kay man lañuy top luma wax ñu jël ko wax ko luma def ñu jël ko def ko sax buma ko solé da ngay gis sëriñ bu jigen bi def interview di yére bu mel non wa sajna nak nag mbubu 200000 la sol de très bien mais aro or maanaam yow fu mu nekk nii daal ku la calculer ci ko ba su juróomi million ngi nii toog sama problème mooy plus bi <laughs> juróomi million ah, <laughs> sama problème mooy Yves sama problème montre marque bi këyitu kër sama problème mooy man dama yéene ñëpp jàmm man yéenewu ma kenn lu bon man nag sëriñ jigéen yooyu ngay wax man am naa ci ay xarit ñoo xam say xarit lañu oh am na da ngeen di jëflante. jëflantoo ma ak ñoom mais dañ maa bëgg. ok man ku ma ni dama laa bëgg rek damay jàpp ne danga maa bëgg. ba ba may gis lu tax nga bañ ma. Mm-hmm. ku ci mel ni maman Fatou Ngom saltige sama yaay sama xarit. Mm-hmm. daf may nemmeeku daf may ñaanal. Mm-hmm. daf may tojal ay kurus. ku ci mel ni soxna Awa Fall. sama mag la. dëkk Maris yaraax Maris. sama mag la yaa ngi dégg kooku sama mag la. daf ma ni taalibe Cheikh na ma ne ko naa mu ne ma dama laa bëgg ba bu ma lay xool samay bët day jooy aw ma ci yow sago mhm. ma ne ko koo bëgg bëgg na la. dafa laa nangul waaw dafa nangu ku ci mel ni Abibatu mhm. kooku sama rakk la mhm. kooku daf maa bëgg ba këram ku fa am problème mun la dama ci taalibe Cheikh na. barke Seydina Mohamed tey la laay wax. am na doomu magam bu nekk France sëy yéex am doom mun ne ko demal ci taalibe Cheikh na yebal ko ci man nëbbatu oh. ma faj xale bu jigéen ba mu ëmb. site internet dem fa. mu ni leen gis naa ngeen dugal taalibe Cheikh na damay def ci moom seede ñu ni ko looy def ci moom mu ni man sama doomu mag dañ koo maye bitim réew mu yéex a ëmb maa ko yebal ci taalibe Cheikh na da ko génneel ay sarax avant garaba ma dem mu ëmb te boobu xamul xamul te boobu te boobu xaw ma ko site internet bi jóge fa rek ñëwaat ci man ni ma taalibe na xam nga soxna Abibatu ma ne ko xaw ma ko de mu génn téléphone am ni ma kii mooy Abibatu ma ne ko wax nga dëgg mu ne ma kii da lay bëggee wax na ci yow wax fa rafet nee na dafa am doomu magam bu nekk bitim réew tëwoon na am doom yow yaa ko faj mu am doom ma ne ko jox ma numéro mu jox ma numéro ma woo ko ne ko soxna Abbatu noo def mu ne ma kokkal la ma ne ko taal bi seen rek mu yuuxu laa sama mag woo na ne ko diw moo ma wax seede bi nga def ci man mu ne ma noonu la demee sama doomu mag dafa sëy bitim réew amul doom yaa ko faj ma ne ko ah mu ne ma waaw daal ni ma bis ne ko tey jàpp naa la dénk naa la sama bopp ak sama njaboot te nam ko waxee nag noonu la koy defee barke Seydina Mohamed nam ko waxee noonu la koy defee soxna Awa Fall daf may woo téléphone yi waxtaan lu yàgg maman Fatou Ngom ba sama bopp bi metti gumba ga këram sa kër laa njëkke mooma moccal du moo moccal sama bopp ne ma jugal nga dem faju ci dan laa laal man moom sëriñ yu jigéen yi am na ci samay xar waaye am na ci nag ñoo xam ne dañ maa noonoo gis maa gis seen butit lañ yemale dañ ma noonoo su ma defee interview toog ci fauteuil sax bu subaa ñu jënd fauteuil yu mel noonu. te defoo leen dara. te defuma leen dara dama leen di déranger parce que dama dama osé. Mm-hmm. parce que dama gëm sama bopp. Mm-hmm. ndax dama xam ne téew ma yëfu xale. Mm-hmm. waaw téew ma yëfu xale sëriñ ba ma menacé woon ni ma damaa bëgg nga tëj sa gémmiñ. xale nga. yaa yaa sëriñu jigéen yi yaa ci mujjee juddu. jaru ngay bari wax. ah defe naa ni ah ku fekkewul de waxati de. defuma ko dara nag. waye doomu adama bu andek suñu borom dañ koy moytu. dëgg la ndax yaang may deg mohammed mhm. dafa mel ni da ngay nelaw da nga son ah, doomu adama doomu adama bu andek yalla, mhm. dañ koy moytu. Mhm. ta man yalla kessé la andal anduma ak leneen. ndax yaang may deg sëriñu goor yi. amna ci ay xarit. ño xam say xarit amna ci sëñ ci sama sëñ Babacar. ku baax sama chamign la. sama xarit. ndax yaang may deg dem rek ño nekkon mustafa mustafa Darame. sama sama càmmiñ la. yàllaay jaaro bi. Mhm. sama xarit la. borom jaaro bi kan dañoo bëri mooy ki sant Ndiaye. te mu sëqal karaw gi di sa laaj dama ko xam ne sañ Moustapha Ndiaye. waaw sëñ Moustapha Ndiaye ah, euh, borom jaaro bi. Mhm. dafa am sax sama numéro téléphone des fois daf may envoyé message. Mhm. kon ñooñu dañu ñàkk ki yaa ngi dégg man sëñ Cissé dama koy woo waxtaan ak moom. ndax sama mag sama sama sama sama conseil la. dañuy waxtaan gis nga bokk xam-xam bi jaruta tax a rayante ndax gis nga fii séentu asamaan la jatt bu xante fu waaye taxaw da ngay séen Yves euh, uh-huh. euh, dañ lay bëgg a euh, li ma la bëgg a laaj mooy li li ma wax sànq parfois da ngay dégg nit ne la dama lay defal bàyyi rek te saa boo jógee di laaj publicité donc ndax bàyyi boobu boo ko defalee ni dina sa mais maman. question maa ngi woon ci sama doom. chaque jour chaque mhm. nga gis ku naan la dama yor bayre damay defaraate bayre te moom pour mu am bayre il faut mu génn. comprendre nga. ñu koy coow publicité. Mm. wala léeg-léeg ñu def benn bétise rek pour nit ñi. xam leen ci loolu. Mm-hmm. mais moment du foofu rek laay ñëw. Ah. sànq dama dégg ñu ne da ngay defar euh, produit ange. yow yaa ko njëkk a indi. ci. Euh, produit en Chine ndax yow yaa koy defaral sa bopp wala nan la demee jaaro yi ma dégg ngay wax yan façon jaaro ngay defar beneen bi ci topp li ma la bëggee laaj internet bi am na ñoo xam ne mbubboo wuñu sëriñ sax mais dañuy toog comme dafa yomb boo defee lii boo bëggee dëddale defal li mm-hmm. boo bëggee def lu bon defal lii ndax yow mi koy joxe amoo xam-xam ban conséquence la mën a def ci yow. waaw yow ñu ko jox nga utiliser ko. Mm-hmm. ban conséquence la mën a am ci yow. waaw léegi question bu njëkk bi mooy ñi nga xamante ne dañuy wax ne dañ lay defaral bàyyi te ñoom pour nit ñi xam leen il faut ñu dem uti ku leen wane wala ku leen di sënaf sànq pour nit ñi xam waaw question bu njëkk bi dama ciy sawar a tontu dafa am ku ma woo Londres ni ma mama taalibe Cheikh na dafa bëgg nga defaral ma sangatu xaalis mm-hmm. ma ne ko su ma ko amoon du ma génnati télé. Mm-hmm. wala ma ne ko su ma ko amoon du ma génnati télé du ma génnati site internet dama koy sangoo rek di am xaalis mm-hmm. ndax yaa may dégg ku la ni mën naa laa defal sangatu xaalis damay jaar ci digg waxul dëgg su ko amoon sangoo ko ndax yaa ngi may dégg gis nga bayre nag dañ koy defar foofu damay d'accord bayre am na ndax gis nga nit même bu dul liggéey bu ñuul am na aaya boo xam ne bu ñu la ko waxee nga koy jëfandikoo rek fu foo bëgg ñu dégg la dañ la fay dégg mm-hmm. te loolu mooy bare mais nag bayre dafa bëri te bokkul mm-hmm. bayre am na bayre boo xam foo tool ñu lay coow doo am sax ndékkee am na bayro boo xam ne boo duggee kaso génn duggaat am na bayro boo xam ne dalay xirtal ngay histoire dafa am bayre boo xam ne nag mooy bayre bi gën bayre bi nga xam ne loo laal mu barkeel loo yootu jot ko loo yore nga réaliser si boobu mooy bayre bu ànd ak kaaraange ndax bayre bu ñu la ko defalee rek bàyyi la rek ñoo sànni lëgg ca lay ga bayre da nga koy defal nit ki pare nga defal ko kaaraange protection protection boobu bayre boobu nag moo war waral sama jaaro ak xeexa yu góor yi ndax da ngay gis koo xam ne day liggéey ay million mais lu mu yor mu dem ñooñu dañuy bënn seen loxo comme inde boo ko defaralee sangat bi nga xam ci yaram wala tat gi waral loolu ba pare nga defal ko jaaro bi même bu liggéeyoon 100 francs dina ci réaliser loo xam ne bu ko xoolee xolam sedd ndax yaa ngi may dégg loolu moo waral jaaro yi lam yi aussi dama ko indi pour jigéen ñi nga xam dañ nekk bitim réew biir réew mi di létt te jamono léegi comme dafa changé dañ ko moderniser mun nga jël sa lam def ci sa gàllaaj takk ko te ken du xamni ni nga tak ndax leg dañu baye jaaru gàllaaju përëg ken takkatu ko ndax ya may dégg li nga naroon tak fi ci sa përëg boko defee ci salam ah muy mbirum walu wursak muy mbirum walu muslay khalis bo am mu taxaw aussi budé da ngay jaay nga def ci bayre pour li ngay jaay mën jar ya nga deg budé da ngay nga def ci pour sa salon dox comprendre nga bu ak lo mënta dal jaaro bi ak lam bi dafa dafay sauver jigéen ñi bu dee ci góor ñi kazaalika noonu ma ñëw ci hanche bi mu wax produit yi mhm. comme ni ma njëkk a defaree fii jaaro noonu laa fi njëkk a defaree produit hanche ak fesse yaa ko njëkk man maa koy liggéeyal sama bopp man dama dama dama présenté dama def interview présenté sama produit hanche ak fesse ma commencé gis jigéen ñi di ko génne yaa ngi dégg def ci ay mu leer la nit ñi dañu dem fii nii marché Mali. Mhm. ramasse potu 350 yi rek ñëw teg ni produit en face dama ko mocc. man fi njëkk a produit bu augmenté sexe góor. Mhm. matoo ma ci seede dañ naan dañoo complice gars yi dañoo garaaw ndax yaa ngi may dégg dañ naan ay complice gars yi dañoo garaaw. Mhm. dama ni produit yooyu ngay wax man dama cee jaar ñam ko. <laughs> yaa ngi dégg. comprendre nga if boo bëggee sama jox la nga ñam yaa ngi dégg non dama ko bëggoon indalé dama ko bëggoon indi xolal déglu luma expliquer la yaa ngi may dégg xolal ma chérie ma fi njëkk a produit bo xamné day augmenter sexe goor parce que goor ñi légui amna ben âge bo xam ne bu ko amé même du âge dañu yoré fébar bo xam day délo sen awra ma génnee karité bo xamni dama ci def sama ay gàncax sokoy diw ci sa awra diko frotte sa awra day day day génn mhm. day mel na la neex kilifa yi seetaan nañ ma baal mhm. yaa ngi dégg day mel na la neex te booy dem sa soxna doo gaaw a pare da ngay jot sa bopp bu baax mhm. maa ko fi njëkk a génne maa fi njëkk a génne produit boo xam ne boo ko diwee ci say ween say ween 15 jours say ween day génn nga diw ko waaw nga diw ko ci say hanche say day génn nga diw ko sa partie intime sa partie intime génn sa fes noonu ma jékki-jékki gis ñu tegale potu karité 350 marché malien naan dama koo mocc maa fi génne karité boo xam ne bu la sa jëkkër joxul bopp nga jël ko di ko def sa awra fi nga séy sa borom kër tëdd sa borom kër loo ko wax bu def hmm. noob la maa ko fi man maa fi jëkk garabu jabet hmm. ay sachet di ko jaay jabet ci hmm. soo moytuwul la hypoglycémie ndax te bëgguma nga am retour sa mère bi fi indoo day fekk. ok maa ngi nii rek toog di xaar. ndax yaa ngi dégg. waaye man am na lu ma ci xam man. télé hmm. laay wax trois jours nga am hypoglycémie. d' accord d' accord léegi balaa nga eggal yi mu ñëw xoolal la sa di ci dellu si waat parce que yaa ngi wax lu am solo ci côté parce que diabète xam nga li dafa yomb Sénégal te li koy joxe ñëpp jàpp nañu suukar kese la mais ceeb day joxe diabète yenn produits yi ngay lekk day joxe diabète. xam nga Sénégal parfois il faut ñu dimbali nit ñi pour ñuy xam boo jël garabu diabète noo koy jëlee ak naka la garab bi war a mel. parce que ku jukk rek ñu jox la benn butéel garabu diabète eh, man joxe ma gaa butéel sax. man joxe ma butéel. Mhm. man ay sachet laa samay poudre. Mhm. dama lay jox. Mhm. sachet bi non non dama lay jox sachet bi wax la mode emploi bi. nga utiliser ko samay garab dafa des. xamna bu fekkee da nga bëgg ñu bàyyi ba si kanam ñu bàyyi ba si kanam. d' accord dañu la wara a xol xool micro bi comme ça su ko defee mu mëna ñaar mohammed hmm. euh c'est bon d'accord ñewal ah c'est bon ok d'accord c'est bon donc baxna na ñu ñëwaat tay ci li nga xamantene um wax na ko hein def na ne bokk na ci question bi mu doon poser ci jaaro yi defe naa wax nga jaaro tontu na ci. ah wax nga waxu nob mm-hmm. wax na ba wax karité bi. Mm-hmm. Ah, na foofu. ci mm-hmm. yi nga bëggoon xam wala laa ci bëggoon a dolli. la daggoon sarax que parfois da ngay dégg ñii ne saraxe guro baax na. ñii ne la saraxe guro baaxul keroog seetaan naa ku ne nañu moytu saraxe guro. dégg naa aussi ku ne nañu moytu di saraxe ay gerte ak yooyu ndax dafa am sarax yu gën ak yu gënul. soo toogee ba sentir cat ci sa yaram. jëndal liberu gerte xott bu woow bi nga xey suba tel jor ko ci sa dajale dem saraxé ko xam nga ban sarax lay téré suukar ak sondel ah lu tax mama da fay sey ndax yaang may dégg soxla bu tax nga joxé ko soxla bobu nelawna mm. sondel da fay tak te difa tang du sotal ben soxla mais lo sentir saraxé ko saraxé ko mais ñi tal sondel guddi fanano voilà dafa am système sondeel nenn nga koy taalee pour fanaanoo ko da nga jël sondeel bi nga jël brin almet bi nga tari ci faatiha nga jël sondeel bi nga ñaan sa soxla nga daal di kos bantu almet bi nga taal ko ci samp ko ci côté bu sa ñaan nangoo soo xëyee doo fa fekk dara bu sa ñaan nanguwul boo xëy da nga fay fekk ruit bi loolu ku bëgg sax mën nga ko tester ci say soxla maa ko maye gratuite ndax yaa may dégg mais à loolu jënd sondeel dem ni bi am yàlla jox la wala jënd suukar dem bi am yàlla jox la man dama koy tere. yaa ngi dégg gis nga sarax dafa bëri lu muy def ci doomu aadama. gis nga man nit nekk na bitim réew 15 ans amul papier. mu contacté ma ma seetal ko ni ko lii la ñuy saraxe ak lii ak lii. mu yónnee ma saraxam ma génneel ma defal ko ko barke Cheikh na Cheikh Sadio bi mi may yaakaar. matul une semaine ñu woo ko ni ko say papier génn na. Mm-hmm. sarax dafa bari lu muy defar. defar. sarax day fanq dee. te de soxlawuñu gàll ak takk mais sarax yi mën na defal seen mhm. bu ma xëyoon yàlla nar maa jël. ci mhm. ngoon gi. Mhm. ma koy suba teel sarxe. yàlla mën na ma tegal yeneen jour. loolu dong la yàlla di fanqee dee. muy sarax moo tax jullit bu ne da nga war di saraxee ñi dul jullit sax dañuy saraxe. sarax dafa baax. ku la ne bul saraxe lii bul saraxe lii lii waxul la lu am man. sondeel lay téré ak suukar. d'accord dal am nga question bo bëgg a dugal. waaw balaa ñëw ci mohammed ci sànq lay laay ñëw. Mhm. parce que dafa am sam ben xarit. Mhm. bo xam ni daf ma expliquer toy waar. légui ni la ma ko la ko expliquer par téléphone. Mhm. maire bi gumba la. Euh, mooy ñi taxaw ci côté VDN bi. yalwaan kat yooyu noonu. waa ji ñëw jël mbuus bi jox ko maire bi mu diis lool mu yaakaar ni ndawal la mu yaakaar ni suukar la tekk rek muy ñàngoor waaw mu jox ko gumba bi waaw saraxe jaan ma koy laaj ndax xam nga waaw am na ñuy saraxe ah, baax mais xam nga non non baaxul saraxe jaan baaxul ah, parce que jaan sacrifice la xanaa xamoo même saraxe ndawal ndawal ndawal ndawal man bu la koy digal sax dama duma la nga jënd ko dé dama nan la demal ci jaaykatu ndawal bi mm-hmm. nga fekk kuy jënd ndawal mm-hmm. nga taxaw né mu commandé ba wara fay nga ko soxna ci bayil ma fayal la ta yalla tax ken kenn jëndatul ndawal di ko sarxe parce que jamono mo tollu foofu sacrifice yi dafa mm. sacrifice yi dafa bari mm-hmm. ndax yaa ngi may dégg man li ngay wax ni amna kuma ni dafa gis ben action ina dafa don daw ci veden mu gis ku ñëw sarax ben nit mbuss mu jël mbuss bu teg ko bopp nit mais maman nga baal ma foofu nga baal ma Yvan mm-hmm. sànq dafa am ku ma doon expliquer mm-hmm. nee na jànkam dafa mës a ñëw ba ci jàkkaarloog cinam dindi sër bi nii mm-hmm. comprendre nga dindi sëram jàkkaarloog cin bi comme xam nga ko dindi sa sër doo dese dara loolu lan la nee na moom ba tey daf ko jaaxal action bi lan la ci jóglu waa dàq na waa dàq na ko mais xamul lu mu ci jublu bu yàggoon tuuti bu fa jànq bi yàggoon tuuti nangu jëkkëram dafa ubbi cin bi waaw sàgganu cin bi dafa sàgganu cin bi. ñëw ba jàkkaarloog cin bi dindi sërëb ni waaw jàkkaar cin bi dafa foofu la dese naa ko xam mais ci cin bi daal la jàkkaarloog da doon suuru wala. <laughs> non non cin bi daal su fa yàggoon tuuti nangu boroom këram. allah akbar bu fa yàggoon tuuti nangu borom këram. beneen bi.

benn question bi mooy euh, mooy sëriñu dóorkat yi ngeen doon wax sànq. Mhm. dafa am sam benn xarit boo xam ne dama ko gëj gis. Mhm. toog ba si yàgg woo ko ñoo xam koy la gëj a gis bari xaalis. Mhm. daal ñëw seet maa ngi mbuur. mbuur sëriñu dóorkat yu bari dafa dem mbuur seeti ko. fekk ko ci benn kër. mu nekk bëkk néeg. boo yow kañ nekk bëkk néeg. Eh, yow daal toogal rek. fee mooy sa néeg maa ngi invité weekend da ngay man ne ko acca sëriñ malien la sëriñ boobu mhm. yow daal client bu ñëw rek sëriñ malien bi ne la bëy bu ndaw mhm. wala naag wala kanaara mhm. ah ñu daal di rey bu ñu reyee mu defay affaire ma ne ah sëriñ bi kii garaaw na de ndekete yoo timis lay xaar mu maase sama xarit dibiteer ba lay jaabante rek lakk man damay jékki-jékki rek ñu tàqar ñëw indi moy sarax mom lañuy réré no dëkk bar nay door kada ah. té te né ko té Mbour la gëna a no non dibiteri yëpp sëriñ yi fa la ñuy li nga tok li nga tok yépp manam yow yaang ci jang ni. ki kon li muy laaj ni da koy leb ci biram la jëm. sama xarit bi muy joggé Dakar ni la toll. mais bama éggé Mbour bam ko gisee comme bam way yow man ko boy tay da nga am yalla mun mak dinaa la wax lepp togal d'accord. Mohamed, tu es ci côté footballeur ok eh, révélation si hmm. euh, avant nous sax damay ñëw tuuti ci côté sarax ok. Euh, li sa way di wax ni legui mama talbi Cheikhna dina ko laajte quelques points parce que limi mu doon wax ci walu sarax dafa am solo xam saraxu nit ki. ba pare yang koy wax lolu parce que léeg nga gennalo nit sarax. mu genn ko mu tejj dëgg nga sangulo nit jox ko càngat mu sangoo ko yàqu fa ba faaw. Mm-hmm. léeg nga wax di defal li ak li jox ko ay tegtal mu defal ko bopam sax affaire tejj alors que mm-hmm. sax mi ngi doon mos as tuut. Mm-hmm. loolu mu doon mos sax mu mënatu see jot. donc limi wax ci sarax ci ben secret ma bëggoon nga ñew ci avant ñew ci walu sport manam léeg nga gis ben seetkat di seetal nit téeméeri personne ku ci ku ko ci woo benn sarax bi la lay wax. génnal xaru benn sarax bi maanaam génnal xaru benn melo bu weex. moo fi xew. juróom-ñaari ginaaru olof. Mm. ñeenti kaamil. Mm-hmm. saako ceeb. Mm-hmm. ceeb bu kaamil bu ci nekk dafay ànd ak satala kurus ak sijaada. Mm-hmm. keneen woote waat mu waxaat ko même personne loolu bëggoon naa nga ñëw ci. ak xaru benn melo bu lan lay def ci nit. des fois damay ci point des fois da ngay nit mu am problème am. nga seetal ko nga gis saraxam. ni ko yow dañ la war a rayal xar wala dañ la war a rayal bëy mu ne man dafa am sëriñ bu ma seetaloon nee na bu ma tuur deret kaay ma la leen képp kuy dund danga nga am rawxaan ndax yaa ngi may dégg mm-hmm. képp kuy dund dama mas a am ku ma seetal depuis Canada mu ne ma meer dimbali ma dimbali ma dama sonn man mu ne dama dem ci benn sëriñ mu seetal ma ne ma sama rawxaan dafa dof na ko kon mooy yow dof nga mm-hmm. ndax rawxaan ak nit waaw duñ tàqali ko yow taalibe Baay Ñas nga xam nga li ma la yaa ngi may dégg mm-hmm. képp koo gis am na rawxaan te gis nga doomu aadama nga xëy rek nga bëgg ubbeeku rek nga jënd potu meewu gloria rek nga daj ko sotti ko ci sa buntu kër mm-hmm. jéggi dem day ubbi sa buntu xeewal yaa ngi dégg tuur deret dafa baax ci doomu aadama nga yor tuur ak nga bañ a yor tuur mm-hmm. tuur deret dafa baax ci doomu aadama ndax comme ni ma ko waxee rek léegi ñi ñuy defaral ak ñi ñuy yàqal dañoo tas waaw non mais maanaam tegtal maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñi defaral ak ñu ñuy yàqal dañoo bari ba moo tax tuur deret dafa baax ci nit sarxe nawal dafa baax tegtal yi ci li ñuy wax mooy nit danga nit ku nekk ak raw xaanam nit ku nekk ak saraxam ndax yaa ngi dégg nit ku ne ak raw xaanam ku ne ak saraxam boo seetalee ni danga koy wax lay saraxam mu jox la ko nga defal ko ko wala mu yónnee la ko nga defal ko ko yaa ngi dégg ñun seetkat yi nag daf ci am ño xamanteni ño ko mën yam yem ndax yaa ngi may dégg. Mm-hmm. comme ni ki wax rek ci dibiteri ba lañuy jabanté mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. waaw ci dibiteri ba lañuy jabanté ba moo tax ku ñew ñu ne la xar ni la bay ni la ginaar samba ñoo ñu ko xar ni ko naat ni ko bay ni ko ginaar. ndax ya ngi may dégg. ta fekk defuñ ci dara lepp ci dibiteri ba lañuy jabanté comprendre nga. yaa ngi dégg oh. ba moo tax suñu liggéey bi dafa raxlu ci bokul moo tax pour doomu adama yi. Euh, fatox daan taa ba tey boo demee fekk fa teb teb ñiy gëm dañuy gëm mhm. mais jamono ji léegi ñiy weddi ñoo ëpp ñuy gëm ndax dañ leen dañ dañ leen a dañ rey ba ñu dee d' accord mais léeg-léeg nga gis waaw ci loolu laay ñëw maanaam xaru benn melo bu souvent léeg nga gis ay euh, sëriñ di la ko tegtal naan la mhm. génneel xaru benn melo soit ñu rey ko wala nga ñàkk koo rey wala nga takk ko sa kër xaru benn melo mhm. mu weex mu tajul fenn nga yeew ko sa biir kër wala ñu rey ko saamal la ko nombre samba joxe ko am na luñ cay def ku liggéey mu dellu ci kawam am na luñ ciy def bunt boo fëgg day ubbeeku am na luñ ciy def nga am entreprise boo bëgg a taxawal lijjanti ko mu yàgg lool mu leer la ne say kër yëpp leer na mais lan moo ko bloqué ñu defal la ko da da da da day euh, projet ba day aboutir mm-hmm. ndax yaa ngi may dégg am na luñ ciy def ngay dagaan tukki mu yàgg lool ñu defal la ko ci sa tukki day sotti xaru mel ni melo mu weex ak bëy bu xonq ñoo yam secret daf ci nekk d'accord mais est-ce que sarax dina fay coow ma baal ma foofu maanaam coow nit koo xam ni dafa am coow di liggéey ci place ñu indil ko coow wala ñu mu ne ci gouvernement moom fu mën a nekk mm-hmm. coow topp ko mm-hmm. coow loo xam ne du fay moo mm-hmm. xam nañu la mais dama bëgg. dégg nga maanaam dégg nga fi mu waxee. voilà laajuma lu mu xamut nag kii lu ma laaj la ne da koo xam. voilà c'est saa donc nit ñi seetaan non damay voilà pour nit ñi xam quoi parce que dafa am tegtalu sarax yu. sarax dafay fay coow. Mm-hmm. sarax da ciy fay coow dama lay indi suñu anecdote ba. Mm-hmm. <laughs> moo tax man la laajuma lu ma xamut. dafa am benn waay boo xam ne dafa nekkoon Belgique. muy liggéey ci benn banque bu mag. di jël alal ja di def lu ko neex. yàlla dogal. ñu gis ko ñu ñu ñu audité ko gis ni dafa lubal xaas bi ñu jàpp ko mu woo yaayam Gàmbi mm-hmm. yaay ji woo ma téléphone wax ma ka mm-hmm. ba ma ko yaay waxee ma ne ko ah tey la talaata suba àllarba mm-hmm. alxamis laay génn sarax nu ñuy def mu ne ma sama doom mbiram lu mu ko jaral jaral na ma ko ma ne ko su ma ko defalee sarax bi ma ko bëgg a defalaat dinañ génn te dootuñu wax euh, kii bi coow li ndax xale bi dañ ko naroon sànq ndax la mu jëla bëri yaayam tamit doon nit ku bëgg njaboot ku ñeme njaboot. ñu jëflante. ba ñu jëflantee ñu génne ko daal ni ko demal après dinañ la woo. xale bu góor bi dem. ba mu demee 15 jours ñu woowaat ko mu ñëw. bañ ko waatee mu ñëw ñu ne ko dañoo bëgg nga génn dëkk bi. ñu génne ko daal. ñu ko da ngay génn dëkk bi. may nañ la dalee génnal dëkk bi mu wax ma ko ma ni ko génnal nga dem beneen dëkk 3 mois nga dellu siwaat mhm. mu ma ma génn man ko génnal nga dem beneen dëkk 3 mois nga ñibbi ñibbisiwaat te li gën a garaaw ci mbir yi dafa génn dem beneen dëkk 3 mois ñibbisiwaat fekk ay lettre fiscale ci boîte de lettre am. Mm-hmm. waa société ba mu doon liggéey ñoo ko bit. Mm-hmm. pour mu dellusiwaat liggéey. Mm-hmm. ndax yaa may dégg. mu gis lettre yi tiit woo yaay ji wax ko yaay ji ko woowal ma ma tali bi mu woo ma wax ma ko ma ko demal liggéey. ma ne ko wax jooju mu ne ma ko bu néew jugut wax jooju du jug. demal nga liggéey. ba jusqu'à présent te lépp sarax la ba jusqu'à présent mu ngi liggéey man nag kaay dama la leen man sarax alhamdulilah rabbil alamin sama foor la man liggéey bu ma la ko defalee rek sës naa ah, man sarax du gaaw a liggéey man sarax sama foor mhm. ba ñaan ba ma la sarax génne sarax dama naan ma lay ñaanal toogal 15 jours ba xam lan la ñuy mhm. toogee 15 jours nga ne ah, maa lii xam ne a kon cangat bi lan lay représenter cangat bi cangat bi. sangat dina sangat dina dindi chat sangat dina dindi febar sangat dina dindi umu. sangat nit ku xelam dem sax dañ koy sang mu dellu si. dañ koy génne sarax sangal ko defal ko ay sangal mu delu mah? man neena la khatimuma binuma binu man khatimuma ñaanuma man saltige la d'accord léegi dañuy ñëw ci il faut mu leer parce que waaw man binduma alxuraan. Yves am na càngat yu ñuy jaay ci marché bi de. Yves te bu bëggee mun naa lox turi man bëggu man moom nag waaw ñëw ñëwal càngat. man binduma alxuraan. Mm. yaa ngi ne man binduma maasuma. Mm. man sunguf ak reen laay liggéeyee. ba ci ku ñàkk am doom Yves. Mm. xam nga am naa ñaata turandoo. ci télé laa wax turandoo. <laughs> boole naa ko ci photo yooyu sax dama ko waroon jox. église ba am ñàkk tuddee na ko doom mu dem ca église ba mel ni man bu ma séenee maama Ba taaliba Sénégal pour man moo ñuy baptisé ma dem église xam bu ñu lay sa turandoo moo la war a fab. il dem na ko yaa ngi dégg li ko indi mooy. ñii dañu sëy am benn doom taxaw. ok ñii sëy lu yàgg amuñu doom. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. seen tukki. Hmm. Hmm. bu fekkee dañ la takk bees. Ah su fekkee dañ la takk. Hmm. sa jëkkër jël la rek dem. te jëloo ci ëmb. sa ëmb mën na yéex. mën na dem ba sa tàggu nen yi am ay jafe-jafe. wala sa bëtitu njurukaay am jafe-jafe. su ko defee nag yàlla dama ciy suturaal man. bu ko defee yàlla daf ma ciy suturaal. ma def ci li ma mën yàlla may ma ci ndam. yaa ngi dégg ñii dañ may gis bëgg ma tuddee ma doom. ndeysaan mbirum AVC aussi. parce que sànq junj ko ci euh, tàmbali émission bi. groupe AVC man am na ñu ma ci dégg. AVC euh, man mënuma ko wax sax nag bala ñu maa teg xaw ma AVC waaw mbirum AVC moom. Mhm. yàlla dimbali na ma ci ba. su fekkente ni sa côté bi métti. Mhm. suñ la jamee puso nga yëg ko. Mhm. boo ñëwee dama lay faj. incha allahu rabbi dëggam neex na yàlla. soo ñëwee dama lay faj. parce que AVC dafa bëri façon Mouhamed. AVC. am na ñoo xam dañuy dajeeg jinne mu fel leen seen côté ba paralysé am na ñoo xam dañ leen di sànni ngelaw yaa ngi dégg am na ñoo xam dañ leen di kort am na ñoo xam ne AVC normal la bu tension bi ndax yaa ngi may dégg waaw naturellement mm-hmm. waaye bu ci ci ti doon bu mu ci mënti mm-hmm. doon ci kàttanu yàlla tànk yaa ngi yëg sa yaram boo ñëwee ma faj la léegi euh, ci côté comme li sawaay doon wax léegi ci actualité politique ak wàllu sport surtout dañu gis ni maanaam dama gis euh, jours yi bari avant ñu ñëw ci làmb ji jours yi bari dama gis yaa ngi jëflanteeg ñoom comme ni nga ko waxee sànq te doo leen yónnee ay ay ay ay ay càngaay jours yu bëri dama gis yaa ngi jëflanteeg ñoom ay sarax rek su ñu bëri ah ñu ma gis ñoo xam ni ay tegtal ay sarax rek dañuy né da ngay né ci club bi. Mhm. Euh, affaire ne ci tolof tolof. Mhm. amna ci ko xamni né kon euh, France am problème demone ba nar a ñibbisi fii pour euh ñibisi mhm. yalla dimbali bi jëflanté ak yow da nga ko génnloo ay sarax comme ni nga ko joxé ci ay tegtal ni mu def ko avant ay mbokam di sorti sax signé ñëwaat na. mais sa secret bobu manam fan fan fan nga ko jilé quoi parce que sang ya ngi ne set ak fajj bokul xam sarax nit ki bokul est-ce que yomuna ngay xam sarax yu surtout dañ né football dafa and ak walu jinné su fekke da nga am batine xam lenn du la të loo bëgg a xam danga koy xam mm-hmm. ndax ñi la koy wax dañ la koy wax baatin ak bëti bokkul mm-hmm. borom bëtineen neen yëpp daw nañ borom baatin yee fi des ñu di leen xeex mm-hmm. te xamuñu ni ñoo gën ci ñoom borom baatin ñoo fi des ñu di leen xeex di leen waxal lu ñaaw de ma de di leen xeex ci baatin waaye borom baatin boo ko jéemee xeex ci baatin da ngay sonn gis nga fubal euh, jour yi comme ni ma ko waxee à chaque fois doomu aadama da ngay tal sa bopp. gis nga nit boo talee sa bopp rek dangay ngay neex a jàppale. xam nga jour yooyu lu tax yàlla di ma may ci ñoom dam dañoo tal seen bopp ñeme ay sarax xam nga lan leen di waxal ñàkk kóllëre. maanaam nga dimbal leen ba pare ñu fàtte. moo bu amul ci soxla duñ la woo. seen mbokk yi ànd bu xas signé bu signé xasee ku ci xas ba siñe ku ci xas ba signé. boo demul ba club ba nga nekk doyal ci yow. wala sa contrat jeex. Mhm. nga jàppale ko ba mu signé ko bu contrat am jeexul doo ko gisaat bu ñëwee nag xëppaat la àndaari wax pour nga jàppale ko. ndax du la arriver nit liggéey yow ba pare. Mhm. yorel la xaalis dem yoonam bañ la ko fay. dama fàtte indaale sama carnet yi may noté te koo ci lekk dërëmam nag xoolal koo ci liggéeyal yéex ko ko jox sax mu bindal la triant bi. dëgg la wala mu woo la beneen numéro nga décroché mu daggal la saaga ndey. dëgg la de. ni lekk sama xaalis. nga ni ko déglul déglu mu ni la dangaa lekk sama xaalis man am na koo xamante ni dama ko seetaloon depuis France mu yónnee ma saraxam ma wax ak moom liggéey mm-hmm. boobu tam maa ngi fayeeku liggéey mu avance ma cinquante mille mm-hmm. ay gàllaajam yéex a dem mu woo ma téléphone jox ma benn numéro ni ma fay ma ci sama sama delloo ma fi sama xaalisu sarax mm-hmm. ak sama cinquante mille yi ma la joxoon ma ni ko delloo ma la dara ndax saraxee say sarax la saraxal naa la ko. 50 mhm. millions liggéeyal naa la ko demal ko mënuma soxlaatuma liggéey ma ne ko léegi kon maa ngi lay xaar ren ba déwén boo ñëwee say bagage mhm. su ma ñëwee dinaa teppi jaar fu bon ma ne ko jërëjëf. Mhm. waaye heure boo ñëwee. <laughs> say bagage say bagage dañ ciy jànkonteeg lu bari. dañ ciy gis nit mu ñëw jooy ba jooy dereet ngir bëgg nga dimbali ko. wax la lu ne yow mi ko seetal gis ko dalay leer ni yow kii lim lay jooy pour nga dimbali ko mi ngeeg moom. mais day dee pour nga dimbali ko yegg la foo xam ne da am xolu yërmaande. te Yves ni mu bëree ci sëriñ ci comme ni nga ko doon wax léegi. ci client yi. waaw maa ngi ñëw ñoo yaa ngi dégg nga dimbali ko waxanteeg moom mu ni la waaw xam naa sama sarax mi jàppale ma ma koy def ndànk-ndànk te xam nga man des fois damay gis ci nit la dara loo xam damay ànd ak aal dama lay seetal nga am saraxu 100000 wax la ko nga jooy ni 25000 nga am. Mm-hmm. da nga koy avance après nga ñëw man la yónnee ma 25 nga yónnee ma mottali la ndax yaa ngi dégg daal ni ki jub na dafa am problème dootoo ko déggati wala boo koy woo mu bloqué la mm-hmm. te man sax dama amul habitude di woo ku ñëw ci man liggéey la man dama naan yow yaa ma gis nga yaakaar ma wóolu ma nga contacté ma mm-hmm. li ngay wax bu la ñoree di ma seet mais bu la nit yoreele sa xaalis faaw nga xool ko yaa ngi dégg man avant ma ay yeew dañ xaw nañ maa rey da ngay gis ku la dugal Wave mm-hmm. wala Orange ne nga seetal ko pare bala nga koy récupérer mu annulé ko waaw moo tax léegi su ma soo ma dugalee lay xaalisu seet bala ma laa seeta dama laa naan may ma wala mu dugalal la code ria wala western wala dara publicité wu ma mm-hmm. bala nga koo retiré mu annulé ko moo tax léegi bu duggee dama naan xale yi dem leen ngeen génn dama am link ak benn banque code bu ñu ma yónnee dama naan sama doom bu góor bee demal nga yónnee ko ko mu xool ndax baax na mu génne ko mm-hmm. mu génne ko ba pare ñoo ma door laa seetal su dul loolu doo liggéey dara. ñii ñëw di ñaanlu si ñoo gën a triant ñoo gën a doon dóorkat te koo ci lekk dërëmam mu toog ci réseaux sociaux yi di yàq sa der. Eh, ñoo gën a triant. d'accord alors euh, ñu ngi nuyu ay xarit nag ah, ndax ñoom ñu ngi seetaan rawatina sunu euh, papa Lamine Ndiaye. suñu papa Lamine Ndiaye artiste comédien. Oh, maa ah, na bëgg na ko. waaw maa ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm yaramam dafa tawat bëgg naa nga nga nga jàppale ko. incha allah wér gu yaramam. allah moom suñu suñu xarit la. Mhm. te dañu gudd fan lool. te dina gudd fan dina wér. Ah, dina gudd fan dina wér. suñu lépp la. incha ah, allah gëj naa fa nag. mais mhm. dina mhm. <laughs> gudd fan dina wér incha allah di nuyu xarit euh, am di Moustapha ah moom ma sonn na lool waaw nee na moom naa ko dimbali ci numéro bi parce que yow war na jokkoo ak yow. ñu koy nuyu artiste comédien ah, di Fred yi Tike Lawbe. Mm. ah moom tam mu ngi seetaan cover artiste comédien bu mag Mor Kobar Kobar. Ah, artiste comédien moom tam ñu ngi koy nuyu ah, ak euh, Uli ñoom ñëpp ñu ngi émission bi ak xarit yi nga jot

bàyyi géeroo lii du lekk de <laughs> maman donc euh, bon xam nga yéen seetkat yi ak médecin yi yéen nuro façon secret bu nekk day ñëw ci yéen mhm. donc duñ la laaj ban nit mais ban jafé jafé mo ëpp li ñëw ci yéen mhm. ñu leen koy poser problème bi ëpp ci bi nga xamné mo mhm. moo ëpp problème bi bari ci nit ñi dal jafé jafé bi ëpp bi ñu leen di indil chaque jour problème aduna yi bari na dé problème adna yi bari na surtout damay wax wala yàq wa ma ngi ñoo surtout damay wax ci sama sama sama sama mbokk yi nek diaspora bi ñom dañuy dem tukki Europe sen borom kër ñi sen borom kër yóbbu len ñu dem ba jek wor yóbbu sen borom kër ci yoon nangu alalam lepp waji di fanan ci mbedd mi melni dof bari na ay modu modu yum arrivé wala nga nek ci bir kër gi di dund ay ak sa borom kër mhm. yaa ngi dégg doo ko lijjanti doo ko faale bala moo xëy nga xëy dana wàcc mhm. di dem ci yeneen àndandoo yoo xamante ne neexu ko mënu mhm. la tere ku ne xam na ne bitim réew jigéen a fa ëpp doole góor mhm. yaa ngi dégg ñuy dund lu métti ñoom góor ñi jigéen ñi aussi ñu ngi dund lu métti Europe parce que da ngay dem sa jëkkër yóbbu la Europe utal la liggéey ne la cinquante cinquante su ma fayee appartement yaay fay gaz yaay def shopping def yëfu tubaab te kooku day def loola ku jigéen ki ba du mën a am sax lu mu yónnee ay mbokkam mhm. wala mu am lu mu mën a def ku góor ki di jël moom alalam di dem takk beneen jabar wala mu am jabar fii Sénégal di ko yónnee loolu la yow mi nekk Europe mhm. moom daal comme paasal na la ba nga dem rek moom wàccoo na ak yow mhm. yaa ngi dégg problème mu am doom problème mu am doom am na ñoo xamante ni dañuy sëy am benn doom duñ mën a am doom duñ mën a amati doom wala ñu seelu yàgg du ñu am doom wala lu ñu ëmb mu yàqu. mais wujj yi maa ngi ñëw ak jànku 40 ans yi. Mhm. jànku 40 yi bari na trop. jànku 40 yi. ku dem ba am 40 dem ba am 40 amoo jëkkër. bari na fi trop lu koy waral waaw jànk jànk maanaam mosuñu sëy. ok comprendre ñi mosul sëy. xam ba mosul sëy rek mën nañ la wax jànq waaw. 40 ans doo am jëkkër fu nekk nga dem fa foo dem ñu la da nga yor rab da nga yor lii mhm. danga yor lii mais nee naa nag yow ma xiyaam moom. yàlla day teg rab yi. Eh, day jël lab rab yi teg nii jël doomu aadama teg nii daal ni rab yi acca wax leen lan naqari ci nit ñi ma plaidé leen waaw parce que jamono bi léegi ku feebar ñun la rab. ku feebar ñun la rab. certes rab am na. yaa ngi dégg nit koo gis am na rab. Mhm. yaa ngi dégg mais dañu jël rab. favoriser ko ba nga xamante ni yeneen feebar yi dañoo dee. Mm-hmm. dara amatul ci dëkk bi lu rab. Mm-hmm. ku tere ku teew am doom ñun la rab. Mm-hmm. ku teew am jëkkër ñun la rab. ku dépose sa papier mu yéex ñun la rab. dégg saraba la tëj. saraba la toroxal saraba baaxul. yooyu la ñuy dund léegi ci société bi ba nga xam ni. mooy moom dafa metti yaa ngi dégg loolu société bi ñu ngi koy boo xoolee cent personne quatre-vingt-dix yépp loolu la ñuy dund. yaa ngi dégg moo tax. Sering, bo xasse ba wote ni sëriñ la rek ku nek dang koy gis da nga wara gérer lu ne ta nga bañ bayyi di favoriser lenn man wala nga dem ñun la sa jubi bi la mm-hmm. liggey mm-hmm. ya ngi dégg man buma lay sétal dama nga amu ju dama la naan dama gis sa jëkkeur dafa am benen jigen bu dul mm-hmm. yaw nga ni ma wa dama am wujju man la duma ci wax ndax dañ tam dañ kat yi dañ la nan jubi bi yaa man duma la wax sa jubi degluma bu baax li ma lay wax bu ko defee ma wax la li ma mu ne maman dama bëggoon nga seetal sama diggante sama wujju man la duma la ci wax dara mhm. da bëgg muslaay defal li def li def li def lii da nga bëgg jubóog sa jëkkër defal li def li def li def yaa ngi dégg nga ni waa mamaa nangam ak nangam comprendre la man daanaka ku ñëw ci man pour ma liggéey la sama xarit ngay doon boo tiitul bëggee woo rek mhm. sama xarit ngay doon waaw lenn tamit sama jukko la man dooma jox li ma war a jox ba pare di ma di ma di ma di ma parce que waaw parce que ku am ci yow confiance mhm. bërki dem rek amna na ku wax ko ay saraxam munima dina la ko jox ma tek sama téléphone am luma do doon xam ma su wuyul xalé ñoomay wuyul sama dombi wuy muniko ko ñu sa yaay ndax jeudi muna indi sarax yi toog mu def ko mhm. maniko lol ko la muna man ko negal ba muniko ko sama yaay dafa japp maniko negal ko ba mu woowat ma soxna si dama bëggun bu alxames ma indi sarax yi toog def maniko ko defaluma la defo sa ma munima tax maniko dama la ko defalul parce que doylo woo deug la man ne ko comme doyloo woo ma defaluma la. man ni dangay am ci man confiance totale ba gis lu koy dindi. Mm-hmm. amoo ci man confiance demal nga seeti keneen man kenn du ma yaakaar ba pare di ma yab. macha allah. waaw ma paas moo xam ne xam nga tax ma wax ko affaire wujj bi. defe naa gis ngeen vidéo bi di circuler. wujj yi nekk ca Mbambilor mhm. tam soode moroomu wujjam soode wujjam mhm. soode doomu wujjam mhm. ñu laaj la am ah. dara looy teg ci table bi lu dul moom moo yàq sama diggante ak sama jëkkër est-ce que wujj boobu dëgg la dafa bon xool mais est-ce que amul ay sëriñ yu jaxase xelam ba mu eenal kiyam wujjam du ñu ñàkk parce que gis nga nit kese kese kese kese attanul yenn yi nit kese kese attanul yenn yi moo ne gis nga ni rab di plaider loolu la sëriñ yu bari di plaider yomal xiyaam hmm. parce que kër yu bari nak ñu baal ma ci waxin hmm. sama mbokk sëriñ yi ñoko tass ndax ya ngi dégg hmm. sa jëkkër ji fay doxaan ku la jege sa wujju wi lim koy jox danaan da leena yamalé way yamalé wu leen ak leneen ak leneen ndax ya ngi may dégg bu ko nga sa wujju def ko lo xam yow da ngay tëdd ci kasso bi ya ngi dégg comprendre nga dafa am yo xamanteni dafa rafetul. bu bu leen sëriñ jaxasewul aussi tamit. am na màggetum yoor yoor mu ne ca koñ ba di leen jaxase. bu leen sëriñ jaxasewul am na màggetum yoor yoor mu leen di jaxase. te yàlla nañu yàlla musal ci màggetu yoor yoor. macha allah sunu maman Ayou Sall aussi moom tam ma nga ba Thiès. Ah. nee na na ci waxtaan bi ndax euh, li muy dégg euh, doy na ko ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Euh, soxna Ami ah, nee soxna Ami wax ko ndey màgget. Euh, bu nekk si de Fadia. waaw waaw nee mu ngi lay seetaan. waaw sama jabar la. sama jabar la euh, euh, kii damay taf ci moom benn tuuti taxaw. Mhm. sooy wër jigéen ju gore ba daj ci ndey màgget da ngay taxaw. Mhm. Mouhamed. Mhm. dama lay seedeloo leen su ma daan jàng kiy organiser sama jàng yi Cheikh Ibrahima Cissé baay Fall bi ki daan indi kuréel bi segg kafe gi moo nekkoon borom këram dafa nelaw taalibi Cheikh Abdou Karim Mbacke borom Makalimal Ahla moo ma yóbbu ci Cheikh Abdou Karim moo ma xamaleeg Cheikh Abdou Karim kii borom këram bi muy nelaw dafa ma woo dafa entré hôpital mhm. ni naa ko seet si naa ko toggal ginaar ma mhm. seeti ko dem toggal ko ginaar yóbbul ko mhm. mu daal di fexe ba dàq jabar ji génne chaîne bi mu takkoon ci dënnam daal di ma sama chaîne bi man xam naa ne damay dee waaye dee ma ci xool Oh. ben doom bu la am ak ndey magget moomu mu ne ma dénk naa la ndey magget denk na la mam bu so ndey magget yàqu ci dara bu ko ni legui ni la la fek sama keur barke sayidina Muhammad bi dox bama daf ko sax day dox bama daf ko mo gën ci man gën ci sama njabot mhm. xolaluma dara deggaluma dara makoy ñaanal mam mhm. jaaraam mom, ci mhm. barke magal gi yàlla na toog ba jox bi makka mu ngi seetaan waaw bàyyi xel eh, moom mo a envoyé message legui dañuy wax ni mu ngi xel wa Gorom 3 aussi mu eh, ngi eh, côté lor lañ nek mu ngi leen di nuyu Doudou Gueye eh, jërë ngeen jëf yéen ni ngi ne émission bi seen émission la ndax guddi gu jot wax dëgg yàlla waa bitim réew ñëw ci garaaw nag ñoom aussi dinañ ñëw ci jafe-jafe yi nga xamante ne dañ koy am ci ay papier yaa ngi koy juñu sànq nekk bitim réew def fa 10 ans quinze ans mënoo jot ci papier xam nga man xam nga man dama def benn erreur hmm. dama waroon sélectionné sama audio résultat yi euh, yëpp jox la ko hmm. sélectionné vidéo yi jox la ko hmm. xam nga mm-hmm. nga tek ko mm-hmm. nit ñi dégg ko parce que wax kessé mën na bañ mën na nit ñi mën nañ ko baña gëm mm-hmm. parce que nak fi ku fi dé ak sa bammel bëgg promotion bu ma taxee toog wax luma mënul ba suba ñu contacté ma su boba dina am problème dégg képp ku may sétane na jàpp ne lépp lu fi wax yalla amna ko te mën nako ko te man jam la damay ñaan yalla te damay am yaqin ni li koy ñaan daf ma koy may ndax yaangi ngi wa bitim rew dañu sonu if da ngay gis ku nek bitim rew de tay nga nek bitim rew ma nek bitim rew nga am papier awma papier da may louer sa papier waaw pour ma ci liguey pour nga ciy liggéey pour man ma ciy liggéey suñ ma fay 20 euros fin du mois sa compte lañ koy virer nga jël 10 euros jox ma 10 euros ndax yaang may dégg def waaw des fois. nga gis koo xam ne dafay liggéey weer dee mu viré ñu viré ko ki ko abal papier salaire kooku dee ca xaalis ba du ko jox. Mhm. yaa ngi may dégg. bu ko kooku laajee xaalisam dëgër mu nangu papier toroxal ko ñaari yoon. Mhm. ndax yaa may dégg. Mhm. Europe li fa nekk dafa bari. moo tax képp ku ci amul papier. boo gëmee sa bopp. boo talee sa bopp. soo ma contacter. dinaa la jàppale waxuma la nag ku def njombe bañ ni la mënatoo am papier. wala nga manqué benn papier boo xam ne da nga ko war a dugal. képp koo xam ne valable nga war a dugal papier mu leer na ni yow mi sa papier yi boo ko dugalee mën na tagga téem bi wala nga sa lépp mat nga bëgg a dugal mënoo wala nga dugal mu yàgg ci biir ñëwal nga seet si ma macha allah kii nee na ma kon Kumba Gaalo war naa ñëw ci yow <coughs> parce que 40 ans ngay jàmp te Kumba fu mu nekk nii tam xam nga dem na màkk Kumba bëggul war ajaratu Kumba Gaawlo <laughs> ah, war nañ koo nag mën a dénk ah benn alaaji nag. kumba bëggul yàlla mu koy may tey est-ce bëgg na gis naa benn vidéo tey mu demoon seeti eh, sëñ Mountakha Bachir demoon ziar ko. ah ma ne ko fa la ñu waroon nag jaaree rek may la benn Baye Fall bu toog ci wet gi rek. Mm-hmm. sëñ bi na la dénk naa la Baye Fall. maa ngi koy nuyu de passage xam nga kumba gaaw la. Mm-hmm. Euh, am borom këram ci moom la aju. Mhm. parce que macha allahu rabbi dafa bokk ci jigéeni jàmbaar yi. Mhm. bokk ci ñi nga xam ne dañu marqué seen empreinte pas Sénégal Afrique. Mhm. Europe partout dans le monde. macha allah laf cat. yal na yàlla guddal fanam. te wéral ay cëram. tolof tolofam bi mu génn. yàlla na doon cangatam. yaa ngi dégg kumba gaaw nañ ko bàyyi noonu rek lu jot day yomb. dañ ko bàyyi noonu rek. waaw Yves kon xanaa nag kan na kan nag kon ñu jox ko Mouhamed ndax nopp na ko. waaw moom rek la bëgg. <laughs> kon bëgg ni bëgg naa <laughs> d'accord euh, ñëw ci daal foo waaw mais mais mais mhm. euh, dafa am benn message moo jot léegi. Mhm. waa Yoff mhm. ah Ibou Touré. la. nee na la mi ngi lay suivre.

nga ne la woyal woyoo fi baax fii laay taxaw ne dama nga jàng. <laughs> damay ragal damay ragal damay ragal mu defal la woyu ñamaxit bi de. <laughs> Touré Mandi Mbori. ñama ñamaxit ñamaxit bañ ko joxee micro ba ni ko woyal. ba mu ne ñëpp daanu xëm. ñu ngi nuyu euh, euh, Couture. moom suma suma sister la daa bëri histoire sax ñu xuloo juboo xuloo juboo Ndeye Ndiaye maa ngi lay moom tamit di suma sister borom la Lion Couture. Euh, ma Awa Diagne moom tam ñu ngi koy ziar grand gise pen waxal sa soxla comme ça maman Taalibé euh, mu ngi cee jublu waaw ah, parce ne soxla ya ko fi bàyyi donc Mohamed ñu ñëw ci beneen waxtaan bi nga bëggoon ñu waxtaanee ko. ok mooy euh, comme ba tey ci wàllu sport ci wàllu làmb. ñu dem ci làmb ji. ok parce que ñëw ko politique bi laa bëgg jeexalee. waaw parce que mbirum Ousmane Sonko. Mhm. soxal na Sénégalais yi. surtout. soxal na leen ak géej gi bëgg naa ci ñëw géej gi aussi li xew fan yële ca Fass Boy waaw ayca doxalal moom non non dama ko doon citer rek waxoon na ci tamit femme bi newoon dafa ëmb ba réer waaw waaw mooy kii kundul ah ki sant kundul def naa te nekk de ñu ne ëmbul dara jotu ko noo demal ci ci làmb ji làmb ji après doog a bëri na ay sëriñ yoo xam ni mhm. souvent dañuy faral di wax ci làmb ji di fëgg seen dënn mais daan nga laaj daan nga ñaan ci wàllu làmb mbër yi mag daan ngay jëflante ak ñoom mais dañoo gis da nga jékki saay rek nag bàyyi nga ko. soit xam-xam bi ñuy utiliser la wala lan la parce que da nga jékki saay ne dootuma ñaanal mbër beneen bi. fan yi passé gis nañ ci benn armeel ñuy suul fa mbaam sëf. mbaam sëf muy dund. loolu ban façon sacrifice la fan yi passé donc lan nga gis. mbirum wàllu bàyyi ñaan làmb sama yaay moo ko bëggul sama yaay dafa ragal. te bokk naa ci ndëgër laayam bugguma lu koy xoqatal sama yaay bu ñu ma dugalee vidéo def titre bu grave sax daf may wooni ma wol journaliste ni ko ne dindi titre man ko yaay lii moo may jaay parce que ku gis titre bi da ngay ubbi xool soo ubbee dangay gis la ma wax amaana dana la intéressé mhm. waxuma lu aay li ñu bind waxuma ko mu ne ma waaye buñ la defal li dañ la defal li nga wax mane ne ko yaay média du noonu dafa ragal moo tax ma bàyyi ñaanal làmb waaye mbirum làmb dama ci am ay seede Balla bu daan bëree bu ñu nee suba la kombaam laay woo journaliste damay tudd tur ku ñuy wax Sawru Diop su Balla daan dama koy wax bu Balla dul daan dama koy wax ñemew ma bay tuddee tur noonu. mooy boroom euh, sit internet am nu mu tudd Sawru STV boroom STV Sawru Diop laaj ko Balla Gaye bu daan bëre ci guddi gi laa koy woo ni ko Sawru mu ne maa man ko suba du baax Sawru suba dina baax mu ne ma mama sarax bi. bu amee sarax ma ne ko def leen li def li bu amul sarax ma ne ko amul sarax maman waxoo jàmm de ma ne ko waa noonu la demee parce que sama yaay musul ñemee musul ñeme même li def ci làmb ji sax sama yaay musu ko ñeme. d'accord mais nga ñaan ci làmb. mais gis souvent làmb ji nga gis ay mbëri di utiliser nga gis yenn gàllaaj yoo xam ne dalay leen léeg sax dañ naan jigéen bu musul am doom bul fa dem ndax gàllaaj yooyu soo ko gisee. doo mën a am doom dëgg la donc yooyu nga gis mbëri ko def est-ce que làmb jar na ko. loolu dëgg la xam nga ni ku nekk xam nga ndam dafa neex. ta xam nga la làmb mbirum ciosan la ta bo ne ciosan ni mystique ndax ya ngi may deg lamb len do nga ci ay moy fat bakan Balla Gaye am na combat bu mu beure won yagul dara mu pare ndigali di metti dama wut sëwru maniko ne ko Balla Gaye suñ ko daan suñ ko daan hmm? bu daan ah moom moom moom booy ñaar bi suma juumul. fii nga dégg. Mm. gis euh, euh, euh, dafa bokk dafa bokk ci cosaan. te cosaan ku ko xam-xam mystique. Mm-hmm. te mystique mook suñu réew a ànd comme ni ma koy waxee rek. Mm-hmm. dafa am keroog ku ma woo ni ma taalibi Cheikh na taalibi Cheikh na yow est-ce que li ngeen di liggéey dagan na. ma sok soxna si mu ma ma ko alayhi salaatu wasalaam ngën gi bindef motax tax ñu ñëw janam jamono ta dañ ko njabaron japp ko bañ ko njabaré japp ko du dafa dem ci ko xamanteni day jisaane moko wax njabar gi mu mën ko dindi ma pourquoi nak ñun kon duñu def li ma li dañ ko fi fekk dañ ko fi bayyi ndax yaang may deg combat len donc ci daganul muy ray nit waye lepp luñ ci def dag pour am ndam dagan nit lo def pour am sa ndam dagan mais bo ci nit nak baxul ok mbam seuf bi ñu def ci armel yi. mbam seuf bi ñu def ci armel yi mom borom kangam yi. ñi xëccoo rew mi ñoko fa def. ñi xëccoo rew mi ñok man taxaw na tafess am lu may def ma gis ko indi nag bu ñuul diko doxal diko doxal diko doxal diko doxal ba mu raw mom mu fay génn. nak bu ñuul. ah. diko doxal ah. diko doxal diko doxal diko doxal ba nak bi maddu ci ndox mi mom mu fay Nak bi dem. ah. parce bu xasse ba dem ba mënatul taxaw mom nak mo waaw day lab day lab. xagn nan borom ñent dañ nan borom ñent tank du lab mais nak dafa diis. ta tax tax tay lañ ko seuf dafa diis. day dik waaye nag dama am yakane nak xëccio dara. xëccio hmm. nguur. Hmm. Hmm. wala xëccio doon docteur wala dara jarul yenn yi. te mbam même bu daganul bakkan la am. Mm-hmm. te faat bakkan dafa metti mm-hmm. nag ku ne xam nañ dañ koy jëfandikoo nag soo ko mënta rey saam ko jox ko jaam yu ñu jëriñoo bu ko lor mm-hmm. am ñu koy suul aussi muy dund am na ñoo xam dañ koy suul muy dund xeetu liggéey yooyu yëpp xam naa ko te mën naa ko waaye du ma ko def lan la mën a indi tey ci nit ki tey yaa ngi wax wàllum euh, ut nguur tey nit di ut nguur def loolu toon euh, lan la ko mën a jural moom ci boppam ci nit ki bu bu ko kenn xam boo gisee en général. Mhm. ñi am tur rek ñoo fi am ay doom yu manqué. la bëri na bëri na ci ñoom de mais dañ koy nëbb. waa da que dafay parce que dafay fayu. Hmm. même ñun ñi di liggéey am na liggéey yoo xam ne bu ñu ko liggéey ci suñu njaboot gi lay delloo. day fayu. moo tax man lu bëri duma ko nangoo liggéey. wala nga dem fekk fa mala buy dund bu doy waar melokaan wa. waaw. ci biir fa ñoom ci ci ñoom ci biir kër gi. danga nga fay fekk ay mala yu dund yu doy waar yoo xam ne ëpp na wala. loolu même bu dul borom barke yi sax ñaan kat yi dañ koy am nit ku ne am nga rab bu lay daaneel man mii am naa ko yaa ngi dégg man am naa sekk boo xam ne boo ñëwee sama kër da lay nuyu. boo toogoon ci saal bi ci suuf danga koy gis boo ñëwee day ñëw ba ci yow ku mënti dugg ci kër ga te ñëwul ci yaw du ma la ñeme waaw loolu lépp ay xeetu siiñ la borom mi rawxaan dafa am loo xamante ni da ànd ak moom. yaa ngi dégg sama doom dañ ko naan ma yaay dangaa bëgg rab lu ne nga yar man leen waaw. parce que rawxaan yi la. mais nag am na yoo xam ne da koy yar uniquement pour lor sa moroomu doomu aadama. Mhm. que xam nga am na loo xam ne boo ko defee tey jii mën naa sacrifier sa life te duma la rey dëpp sa wërsëg lépp loo naa doon am mu ñëw ci man. loolu ci euh, loolu secret la. daal la. Ah. te doo ko jege doo ko laal. Mohamed mii turam turu yaayam ñu def ci liñ ciy def am fuñ ko def Mohamed dara dootu ko am man rek la ñuy dégg duñ ko dégg moo tax man la a mën a mën a wóorul yow yow a gën a wóor mais Ouz bëgg naa ñëw ci benn ñaan bu am solo ñu kon bala ma jeexale foofu benn question rek benn question bi benn question bi mooy posé balaa ma koy que parfois message day tegloo mhm. te léeg-léeg ma dem ba ñibbi ñu naan ma liiroo sama message bi dëgg la yi ay tànk yuy xasan xasan bu metti di ko faral di dal lan moo koy faral loolu xasan bu metti ndoxu siti mën na ko def mën na dëgg liggéeyu jàmbur. Hmm. sañ naa def nii de comme dindi nañ micro eh? loolu ndoxu siti mën na ko def mën na dëgg liggéeyu jàmbur mën na dëgg liggéeyu boppam te nam waroon a dalee daleewu nii hmm. yaa ngi dégg. Hmm. mën na dëgg liggéeyu jàmbur. mën na dëgg liggéeyu boppam te nam waroon a dale dale wunu wala ndoxu siti mu yem ci xasan rek. waaw mu yem ci mu yem xasan rek bañ ko gàllankoor. d'accord mais bu fekkee da ko gàllankoor na na dem seeti ko na dem xool ko parce que léegi liy lore dafa gaaw. Mhm. waaw d'accord. Euh, Mouhamed dafa am question. ñaari question yu may boole rek mu ñëw. Baye Cheikh Louga. maa ngi lay nuyu euh, benn bi mooy. taalibe Cheikh na li may wax rek chaque fois euh, am na lu bari loo xam ne xam nañ ko ci yow. man xam naa ko ci yow. keneen xam na ko ci yow kuy seetaan xam na ko parce que preuve yi bëri na mais dama bëgg tey mu leer maanaam noob yomb na wala yombul parce que dama gis ni léeg nga am sa jabar mu dem. wala nga am nit ki wor la lekk sa xabar a dem nga wër téeméeri sëriñ du sotti. munoo fexe wala sax nga bëggoon takk ab tubaab mu bëgg la lijjantil kayit. yëf ya dëgër nga topp ci fu noo nga dem lu la ñu sëf loola ko mënta sotti. yomb na dafa am secret wala beneen bi mooy rab am na wala am wax nga ko fi sànq ak yan signe lay def nga xam ni kii. rab am na damay njëkk sa question bu njëkk nopp ku ko mën yomb na ci yow waaye ku ko mënul yombul ci yow ndax danga koy def ba bëgg a dee duñ gis résultat nee naa la am naa quarité boo xamante ni dama ko mocc teg ko soo ñëwee di ko jënd ci man sa tur sa turu jëkkër laa lay laaj def li may def jaay la ko nga dem nopp la nga diw ko sa kanam sa ak sa jëkkër ngeen doggoo doon benn. waaw ah, nopp boobu dañ waaw mais du lu ñuy lekk kenn lekkatul parce que rénal dafa bëri léegi. ndax yaa ngi may dégg. Mhm. kenn naanatul ndax rein dafa bëri léegi. Mhm. léegi nit ñi dañu changé système de travail man boog. Mhm. man boog am na loo xam ne buñ ko defee ci sa diggante ak sa boroom kër fas ko ci buumu caxat dee rek moo leen di tàqale. Muhammad xam nga caxat tay ji yeen goor ñi nek fi ñepp bu mal joxoon ke bop jox ki bop ngeen koy xëc du dag mukk da ngay xëc muy rek ndax may deg dañ ko ci def fas ko ci am fuñ ko def de rek mo leen di takalé ana moy waral nga ñu defal ko benn couple nga divorcé dem sey fenen tout ou tard da ngay ci wat ci ki nga doon seyel wa parce que gala gala fi tojul non la dem wala nga nek ci sey nama ma yàlla jéggal jéggalati ma ci kàddu gi may wax ci kilifa yi may dem di njaaloo ko nga doon sëyal fu la fekk nga nekkal ko ci même da ngaa nekk ci buumu sëy même da nga même da nga ak mom mhm. dem fenen, waaye fum la fekk rek mooy lolo. Galaj mo koy def loolu gàllaaj mo koy def yang may dégg des fois dañ na bam xam na def def bala hmm. ndax yang may sa benen question lan la rap nan lay def ci nit rap nan lay manifester rap limi def barina mhm. am na nit ñoo xamante ni dañuy jékki-jékki seen xol yi di tàng. Mhm. te kenn du leen def dara loolu rab laa mhm. am na ñoo xamante ni des fois dañuy yaakaar muy tas. Mhm. loolu rab la na ñoo xamante ni dañuy nekk ak seen jëkkër. su demee ñu namm ko bu ñëwee xuloo bi jolli. loolu rab da koy def. am na ñoo xamante ni ku leen bu amul jëkkër ku leen doxaan ba bëgg leen a takk bu waxaaw nag seen nijaay ja koy may ak seen papa sax du ñëw du ñëwaat. loolu rab da koy def. am na góor ñoo xamante ni dañuy gént di sëy wala ñuy gént di fowe seen bopp ba ba yegg loolu rab da koy def dangay jàng yor say diplôme dugal sa CV mu leeral na kii dañ la war a dóoral cachet doo ci jot loolu rab da koy def nga bëgg tukki mu dëgër rab da koy def yaa ngi dégg rab li muy def bari na waaye rab li mu dul def bari na waaye rab nag fi ñu toll nii duñ ko jiiñ lépp nee na ba question boobu waa région ñoo ko posé booy parfois ñoom c'est des questions ñu ci ginnaaw. nee nañu ko xamante ne moom pour mu dem douche problème la <coughs> day seere rek. waaw loolu feebar la. loolu feebar la mën na nekk sax hémorroïde interne. ok yaa ngi dégg. Mm. ku mu daal da ngay ñëw mooy moo tax moo tax ma doon naa sama garab yi des na. ok man am naa sirop boo xam ne dama la koy jox. Mm-hmm. su fekkee da nga am hémorroïde interne externe yëpp da koy faj. Mm. day tax ngay dem toilette normal day dindi ballonnement de ventre day tax bo lekke lek pour mu baña res boko nané bo lekke day res mm-hmm. day tax budé dee nga da ngay mën mm. ndax dénga ma da ngay mën waaw da ngay mën day lutter rénal comprendre nga day dindi ndoxu siti hémorroïde day indi néew katan mm-hmm. hémorroïde day indi constipation da ngay gis ku am hémorroïde ba buy dem ginnaw kër ginnaw kërëm di nacc fekk hémorroïde moko ko def mm-hmm. mais fawee sa bop di indi néew kàttan fawee sa bop bop moy gëna indi néew katan fi

Euh, rab moo lay rab moo lay xirtal ngay dem di sëy mala hmm. ndax da bëgg a sëy benn nit du la nawloo hmm. wala mënoo am jigéen nga dem sëy mala kon du looy tay daal mën nañ la aussi tamit yàq hmm. tey jii comme ni koy waxee sa yaay di wujjee ci kër wala mu nekk sa magu yaay sax wala sa rakku yaay ndax jamono ji léegi lépp a fi am wala sa magu papa wala sa rakku papa wala kuy sëy ci kër ga mën na la ko def xirtal la ci mala yi fu nem timis di daanu na nga top mbam yi ak fas yi ak yi mu yak la mu yak la yaxeet hmm yaangi deg lolu dañ koy dindi mhm. lolu def def la mhm. dañ koy dindi mhm. yaa ngi dégg gis nga jamono ji legi lepp lepp lepp lepp lepp mo fi am lolé amul rek amna na ko gis parce que nit ñi dañoo dañoo dañoo dañoo capable la de dañoo capable lu ñu ragal am xarit bo xamni mom suuf ci la daan gas buñ démé demee ñi day gas suuf ci rek teddi ci lolu yëpp xalé la déedéet temps heure bi ni mu nekkee mag nii ah. non yëpp am na ay riche mii rek lu nekk lépp am na. waaw loolu moom dañoo réew moom ñi nekk ci biis yi dañoo réew. de toute du naf su bakkan. non yéen boo ko gisee ci nit. Hmm. bu ko bu ko yedd yërëm ko. mais Yves est mën naa ñëw ci maman Koundoul bi. Hmm, waaw ki ne dafa am waxon nga ci mais mama kundul man bama ma hmm. Yves dama ko ni man mama kundul su fekente ni dafa nek sen keur nek jeukeram bi di tëdd ak pendant 9 mois te eumbul te ñom xamuñu ko man lolu yem na ma. c'est ça ndax yaangi deg man batay ñi ngi naan ëmb naa eumbul mais man man man dal ma mom sama gem gëm te gemuma yaangi deg même vrai que dem na ci yoon. Mm-hmm. yaangi deg mais man amna droit ni man. gemuma ndax nit ku nek sa gem gem ngay wax. parce que yow mëno nek sa jeuker neewoo sa yoog mom neewoo tëddoog moom neewoo summeekuwoo ci kanamam neewoo li pendant neuf mois te ñoox morso biir. yaa ngi dégg pendant neuf mois ñoox morso xanaa du la teg loxo. xanaa yow sa sa doom sa jëkka du raay biir bi fóon doomam. Mm. pendant neuf mois. Mm-hmm. Hmm? ñu ne danga ëmb ñu ni ëmb loo loolu daal wax dëgg yàlla nit man moom maa moom sama gëm-gëm gëmuma ko mënuma ci debaa lu bari. parce que bëgguma ci sori daal. Adji maa ngi koy fay. nee na takk na oh, <laughs> koo bëgg bëgg na la. mu ngi lay nuyu Oumou Adji Anne mu ngi lay nuyu. nee na mu plateau bi yëpp. Uh-huh. ñu dem ci politique nag xam naa ne. dina bokk li ñuy jeexalee tey émission bi euh, mbirum non balaa loolu ñëw ci BRT bi parce sànq dañoo xool vidéo bi mais dugg ñu ci carrément. ak affaire géej gi aussi. waaw ñëw ci BRT bi wax nga ko ñu xëy démb defe naa la BRT bi. saara démb xaw ma démb. Mm. tey loolu aussi pour nga dimbaliwaat ñi nga xam ñoom ñoo di nguur gi seen affaire yi ñuy lancé stade yi ñuy ubbee yooyu yëpp dafa laaj ay ay sarax lan nga ñu mën a waxaat tey loo xamante ne mën nañ ko bàyyi xel mais Yves duñu dégg dañuy defeen danga bëgg buzz wala danga bëgg ñu contacter la wala da nga bëgg am na loo bëgg te fekk yow li la yàlla woon ngay gis ba ma dalee liggéey sama liggéey bee léegi laajal Mouhamed ça fait 12 ans musuma fee wax lu ñu ma vaaree ci lu bon lépp lu ñu ma fee bañ fi ne drago drago drago maa Mouhamed ñëw si man ma ne ko lii du dragon kër gi dañu dëkk ak ay rab rab yi dañoo dem nag ba jaboot mënatuñoo nekk ak ñoom moo tax ñuy def seen bruit nañu génn abal leen te am naa yaakaar ni looloo am bañ génnee leen kenn déggatul lu yuuxu fa foofa ndax yaa ngi dégg mhm. bañ fi nee BRT bañ fi nee TER ma ne leen du ma yëg ci TER mhm. ba ma ko defee bëri na ay ba ma ko waxee bëri na polémique mhm. ñu naan nit dafa war a ñaan jàmm seetkat day wax jàmm man leen seetkat bu waxul li mu gis du ni waxoon naa ko xamoon naa ko rek ci lay dëkk ma ne leen man teer bi duma ci mës a dugg wax naa leen ko TER bi même bu fekkoon aw ma oto sax may def transport en commun yi du ci mës a dugg waaw ndaxte wax naa ko ma ni leen terre bi fi muy jaar mhm. ay këri jàmbur la mhm. ay këri jàmbur la mhm. Sénégal ku ne xam na ni dëkku cosaan la ku ne xam na ni fi la lébu yi dëkk ku ne xam na ni fi séeréer yi dëkk ku xam na ni fi la yi dëkk yaa ngi dégg dëkku cosaan la rab yi dañ fi bari jinne yi bari fi comprendre nga suñuy def am réew bu fa travaux di am njiitum réew ma day neexle comprendre nga dugg ci daara yi neexal ndongo daara yi waxoon naa ko fi man leen nañ dugg ci daara yi daara ju ne bu ñu mënul recenser daara yi ñu xool 70 daara. Mhm. daara bu nekk ñu yóbbu fa nag yóbbu fa ceeb yóbbu fa lépp lu ñu mën a toggee. Mhm. ñu togg jox dongo ñu jaa jàng alxuraan ñaan ci réew mi jàmm. Mhm. waxoon naa ko fi. yaa ngi dégg ma ni BRT bii. BRT bii man duma ci dugg. ndax dana fekki mbaa ñu fekki si ko. te la ma waxoon defe naa ni gis nañ ko. waaw yaa ngi dégg. kon nag man li ma li ma gis. ak liñ ma wax. loolu laay wax su ñu gëmee baax na. suñu gëmul man wax naa. yaa ngi dégg bi ci topp mooy géej gi jëlagul dara. fas Boy bi. Fass booy xale yi nga xamante ne dañoo. Fass Boy keroog jaale naa leen. Mhm. ba pare ma ni seen parent yi. Mhm. amul ku ci ñàkkul ni teggi na natam jox doomam. Mhm. te natt boobu mu teggi jox doomam. su ko investiroon ci marché ambulant. balaa ren di déwén mu ubbi bitik. dëgg la. xale yi ñu ngi dem ci mbëkk mi ñu ci bari seen parents yi ñoo leen di favoriser mhm. ndax ñoo jaay seeni or jox leen mhm. ñoo tegg seen i jox leen mhm. te géej gi dafa am boroom temps yee passé gis naa benn xale bu def interview benn xale bu góor mu ne bi mu duggee ci géej gi siré na ko doon dàq di jàpp ay tànkam ñu naan dafa bëgg bës comme Ndiaye Darago jaaroon na fi moo tax mu wax loolu te dëgg la wax sirène yi wàcc nañu rab yi wàcc nañu te bu baax amatut te sirène nit la woon moom waaw nit la woon loolu laa dégg waaw sirène bu baax amatul rab yi wàcc nañu baffin yi wàcc nañu xoolal suñu appelu maam Seydina Limaamu Laay bii rek mhm. saa yu amee baffin yi génn ñëw wane seen bopp mais côté géej mu woon la ni sori mhm. mais côté géej gi bëggoon naa ñu taxaw foofu tëddee di jeex euh, maanaam dañuy jël géej gi comme li nga wax léegi nee nga ñuy dem ñëpp boo xoolee bu dee côté gaal yi la am na sax beneen yoon bu tijji muy yoonu Nicaragua bi États-Unis Nicaragua yow bu ma yàqal dama fay jaar de ah, parce que yoon boobu ñu ngi fay 3 millions 500 bu dee gaal yi la 500000 di nga ko fay. léegi comme li nga ko waxee nii ñi ngi jël affaire bi bon. duma mm. damay généraliser ñu ngi koy politiquer. est-ce que yoon yi yàggul am et lan moo xabtal daw ñi lan la. Mm. parce que dégg dafa bari. parce que xam nga lu leen xabtal mooy ku deful la maam daan def rek di gis la maam daawul gis. Mm-hmm. xale yu góor yi fonkatuñu sarax woy wayjur yi. Mm-hmm. yaa ngi dégg jur yi tamit topp nañ lu neex seeni doom te dañu nekk ci akiru zaman yàlla na yéex. Mm-hmm. gis nga fi mu toll nii fi ñu nekk nii rab yi ak jinne yi ñooy buuri dëkk bi ñoo mës a nekk buuri dëkk bi te dañoo gën a falu buur mhm. ndax ku leen bëgg ku leen bëgg sonal ñu fàdd la mhm. kuy def li ñuy bañ ñu fàdd la ndax yaa ngi may dégg mhm. moo tax géej gi defagul dara de dama doon ñëw géej gi defagul dara mais yoonu Amérique bi dafa am loo fa mosoon wax taawu corona bi am na lu la yàlla wonoon nga ne xawma fan mais képp kuy ndaw boo duggee bitim réew di nga ci am lu kawe sa njott parce que gis naa lu bari luy ñëw ci seen kaw waxoon nga ko. Uh-huh. dafa mel ni loolu moment bi mi ngi am ndax kenn xalaatul woon. Uh-huh. aw yoonu états unit te doo am visa. Uh-huh. une semaine nga dugg. dëgg la mais kaay ma wax la. yoonu Nicarag xaw ma Nicaragua bu bu leen maree xaw ma Nicaragua xaw ma Nicaragua. Euh, fii ak deux mois ku ci noosul woon dootoo ci noos. fii ku ci jàllul woon dootoo ci jàll. Hmm, maanaam. gàllankoor yu metti day am ci yoon wi. saay-saay si dañ fay wàll si mm-hmm. dinañ dogale dinañ nangu alal dinañ rey dafa mel ni commencé na laa dégg sax ah bon mm-hmm. dégguma ko yaa ma ko wax mm-hmm. eh? saay-saay si dinañ wàcc ci yoon bi dinañ dogaale dinañ nangu alal dinañ rey nañu moytandiku bu baax nañu xool beneen yoon Mohamed dama dama contre jël sa 3 millions wala sa 6 millions def ko ci voyage suuf. te investissement yi ne fi nga war a investir. ndax yaa ngi dégg. man dama compte ci sa 500000. dama compte ci sa 500000 jaar ko ci ndox mi. te marchand ambulant fi ne fi élevage yi ne fi. leneen ak leneen ne fi. yaa ngi dégg gis nga ku fekki ku la dul fekki lu mu la def rek yaa ñëw ca yoonam. géej gi fekkiwul kenn rab yi génnuñu. ku fekki ku la dul fekki lu mu la def rek yaa yaa yaa. mais nag foofu di ja Yves. Mhm. nañ waxante dëgg umu. yaa ngi wax léegi di tooñ naan xam naa ni doo ci mos a aw mais Didier yow voyage nga bi ngay tukki du mhm. mais dafa am lu bëgg a wax leeral foofu est que ambassades yi amuñ ci part mhm. seen timbre maanaam seen euh, frais de rendez-vous ñu fay cent et quelques mille wala cinquante quatre mille et quelques États-Unis mille ngay fay te non remboursé te Ecobank ngay fay États-Unis dañu yokk cent vingt mille la léegi man bi may fay frais de dossier maa ngi fay 88000 waaw yokk léegi 88000 foofu est-ce que amuñ ca pas en tant que yow porteur nga yàgg wax ci loolu gis nga ñun ñun lu ñu daal ñoo ko teg suñu bopp parce que ñun ñoo jël suñu réew def ko sans frontière mhm. suñuy frontière comme tame yër yëreet mhm. xam nga luy tame yër yëreet tame bii lay cere bu dijj mhm. ku ñëw jàll suñu réew amul visa dégg ma de suñu réew amul dara ku ñëw dugg te ñun bu ñu bëggee dem réewu jàmbur dinañ ci topp ay atta du tax ñu may suñu alal yépp des ci te ñu ko remboursé. dëgg la pour lan loolu. yaa ngi dégg. ñi ñu jiite ñoo ñu war a jàppale. Mhm. xam ne ñun du ñuy mala ay nit lañu. Europe bu neexul woon duñ fa dem. Mhm. man bëgguma kuy toog naan Europe neexul. Mhm. li ñuy jaar ci géej gi rab yi di këpp suñu gaal yi. ak di rey suñu doom yi ñu jaar ci àll bi ñu di leen kar. ñu dimbale ñu ngir yàlla te may suñu doom yi visa ñu dem liggéey ji. ku ci am casier bu leer ñu may la visa nga dem liggéey ku amul casier bu leer loo xam defal demal bàyyi gerte. ndax yaa ngi may dégg. Mhm. waaye defuñu ko. dañ lay jox ay rendez-vous ngay fay frais de dossier di fay frais de dossier bala ngay fay frais de dossier sax yow boo ko boo boo ko defoon élevage daal di élever mille ginaar. Mhm. ah suñu njiit yi ñooñu war a jàppale yërëm ñu. xam ne ñun ay doomi aadama lañu. Mhm. waaw macha allah ñu jeexale ko mbirum politique euh, Ousmane Sonko am nga loo wax ci moom yàggul dara ci interview bu ñu la defal tey mbiru Ousmane Sonko tey ak soxnaam yi génnoon doon ko ñaanal njekk comme le président Macky Sall waxoon ñaan jek ah donc ñu dafa même dégg nañu waxu président Macky Sall bi eh, son excellence té dañ doon ñaan jek ci digënté président Macky Sall ak soxnam muy eh, Mariam Fay Sall tey lan nga bat jangal nga ci def biñu ñu ñom wax li ñi wax wa sama yaram dafa daw man bu doon malen leen sonko kérok bañ ñaanee njekk damay bay sonko ndax ya may dégg mhm. ndax julit julit rek la mëna doon mhm. te nit ki boo ko ba mu and ak wéradi yaram mhm. da nga koy bàyyi mu dem faju ba pare mhm. su fajoo ba pare lu ngeen di lijjanti ngeen lijjanti ko mhm. sonko nag man laajoon nañ ma ci moom ni ma est-ce que sonko dina poser candidature man leen sonko mi ñu tëj ba pare te boobu duggagul ci kaso bi waaye bi ñu koy barricade waaw man leen sonko ñu ne ma maman ko tëj est dina bokk man leen sonko tëj nañ ko ba pare ñu ne ma lu waraloon man leen ku nu de demoo fenn kooku tëj nañ la ba pare xanaa ko yóotu ko yóbbu ko prison moo des Sonko nag man li ma koy ñaanal mooy mu wér ak jàmm. Mm-hmm. génn ak jàmm dàq leneen mm-hmm. ca beneen yoon. Mm-hmm. waaye du yoon wii bu fekkee yàlla may na ko wér. bu fekkee yàlla may na ko wér mu génn ci guddi gii mu nekk nii. borom xel yu sell yi waxal de. lu tax nga insister. waaw damaa bëgg dégg ma rek. ndax man moom je suis comme ça dañ ma yar sañu ma di wax. direct direct te ay mbiru jàmbur boo ciy wax jarul nga ciy xuus. dëgg la ndax suñu réew mi lee comme que tissu li ñu jël si la. man damaa njaboot te li ma war dafa bari. ndax yaa ngi dégg bu ko yàlla mayee jàmm mhm. ba mu génn ci lii mu nekk mhm. na faju te may conseillé ay bokkam mhm. dañ ko ñaanal ci baatin dafa amul baatin ko ñaanal ci baatin dafa amul ñaan Sonko amoon na ñaan waaye amatul ñaan hmm. mais est-ce que Sonko rek lañ téye ci kaso bi ñun <coughs> téye ci kaso bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla génneeg jàmm hmm. soxnaam yi daa sorti soxnaam yi est que Sonko rek la ñu waroon a waaw mais mais waaw parce que seen jëkkër nag Mohamed hmm. xam nga yow tey jii yàlla tere tereeti ko bu la gàllankoor dalee nga àndandoog ay nit man sepp sama yoon nekku ci ñooña mm-hmm. man yow yaay sama nit mm-hmm. su may ñaan njëkk yow laay ñaana mm-hmm. su may ñëw seet yow laay seet yaa ngi dégg peut-être mënoon nañ généraliser wax nañu après nag ci ñeneen ñi de waaw mënoon nañ généraliser mais comme tamit détenu politique mais comme tamit dañu dañu cité seen jëkkër xam nga ah seen jëkkër la nag borom kër dafa fort ci soxnaam dëgg la wala du dëgg. Mhm. borom kër dafa fort ci soxnaam. Mhm. mais may ñaan képp koo xamante ni caabi géej dama bëgg ngeen génne ma ci gaamu Sonko gaaw. Mhm. <laughs> mais benn rek laa damay ñaan yàlla képp koo xam ne caabi féete na la ginnaaw. yàlla génne la. ndax yaa ngi dégg muy ñu ni jàpp ci muy détenu politique yeeg muy ñi nga xam ne dañu def jëye dem faak muy ñu ne accusé ñëpp ñoo xam ne dañu tëdd kaso rek. yàlla na leen fa yàlla génne. d'accord te Sonko yàlla na yàlla fëgg boppam maa ngi la koy ñaan bu ma laajaat ci Sonko. moom <laughs> ah bon ah la laajaat ci Sonko. code Yves Baye parce que foofu laa la moom may ñu benn rek xoolal. parce nga procès aji saar ak Sonko bi muy am di am di am di am. journaliste bi ñëw xam ci procès Adji Sarr ak Sonko ma leen dara. <laughs> non ci xam mooy na procès bi jeex. nit ñi dem liggéey seen liggéey. ñu war a tukki tukki. macha allah mais li tax nga ne na seeti feneen feneen moo gën ci moom wala da nga gisul avenir am ci politique. Euh, am na avenir politique maanaam mu seeti feneen. du doon 2024. mu xaar leneen daal mu xaar leneen daal. comprendre nga Sonko dafa am jëna mhm. man duma Sonko duma Macky mhm. mais Sonko dafa am jë. ndax yaa ngi may dégg. dafa am ca boo gisee ni mu demee nga xam dafa am ca. Mhm. Sonko dafa yàqule rek. Mhm. ay bu yàqulewul woon. ak ay am dara. macha allah est-ce que xalaat nga tey mu am tête bu bees par rapport ak élection 2024 yi di ñëw ñu jeexal foofu maanaam est-ce que jàpp nga ni tête bu bees dina am koo xam ni kenn xalaatu ko woon. ci Sonko wala ci politique bi ah, dama généraliser. léegi kii posé kii kii kii Macky di samp. Mhm. ñu bëri na tar seen loxo. la ilaha ki Macky Sall di samp ki Macky Sall di samp gis nga Macky bi muy fël moom ci élection yi 2000 lan la woon. 2000 2000. Hmm. Macky bi muy fël. di génn 2000 2000 2000 2012 la. 2012 waay bi muy fël. Hmm. di jël premier di jël di dem deuxième tour. Hmm. jaaxaloon na ñu bari. bañ ne Macky Sall la gagné ñu bari jaaxal na leen. noonu lay demee waat ki muy samp ñu bari dinañ taf seen gémmiñ. macha allah ñu ngi nuyu maam daak artiste comédienne nee nuyul ma ko bu baax. maa ngi koy fay. nee na mu ngi lay bëggee di kontaan ci yow euh, lan ngay jeexale bu fekkee am nga loo ci bëggoon yokk ah, nga yokk ko ci tàggatoo waale ak téléspectateur yi. waaw li may jeexalee mooy Yves. Mhm. di la sant di la gërëm. Mhm. te di la ñaanal gudd fan ak wér gi yaram. ku la xaar yal na xaddi. amiin na nga yeggale sa ndaw sa sago. ci barke alayhi salaatu wa salaam. Euh, li olof Ndiaye di wax naan xale bu loxoom setee. Mhm. mu mën a bokk ak mag mu ne Yves mënuma ko jur mais yaay la may wax musuma sàllalu ba ma ko xameeg léegi mënuma sax à peu près mais nit ku ma jox cer la saa yu ma ko mosaan wax Yves guddi gi mu ne ma yaay tooga rek bu jotee dina am yaa ngi may dégg ma koy sant na di ko gërëm ci opportunité bii mu ma defal parce que wax dëgg yàlla nti man toogatuma ci tele pour jaayu dama toog pour jàppale jaam ñi di sant Mouhamed mi nga xamante ni ku ne xam na sama digganteeg moom cere soow la. da ngay xuyal naan baa nga xuyal tuur. Mm-hmm. ndax olof Njaay nee na kala may njëkkee. Mm-hmm. dana la tuddee doom. Mm-hmm. te ku nawul sa jukko du la may njëkkee. dëgg la ndax bu la tuddee doom doomam day jël ci yow juróom-ñaari jukko. mu yëkkati soxnaam may ma njëkkee. d'accord sa numéro balaa ñu koy. waaw sama numéro 60 ku ma bëgg a jot 78. 200 295. 295. 62 85. 62 85. 77. 77. 194. 194. 52. 52. 77. 77. 110. 110. 1937 1937 19 37. 78. 78. 405. 405. 36 47. 36 47 nan nga nan nga kóoroo numéro yi. waaw kóoru naa <laughs> kóoru naa lépp. wala nga dugg ci internet bi. nga tappe taaliba Cheikh na. di nga gis sama numéro yëpp. waaw boo duggee ci internet tappe taaliba Cheikh na. Mhm. dina leen di samay vidéo samay numéro yëpp nga fa. Mhm. may wax nag ni euh, mhm. nit boo ko xamul. mënoo koo jugé. te jamono léegi bi nit boo ko xamee nga jugé ko. ñu ni intere la. moo tax Mouhamed du ma wax ci moom. Mhm. boo seetloo sama liggéey bi ba ma ko dalee liggéey tey sit internet bu ma mës a dikk dëkk micro moom moo ma ko dékk. Mhm. waaye damaa dem ba ci biir ma arrêté ko. Mhm. ndax yi muy seede ci man. yaa ngi dégg. yi muy seede ci man. te buy liggéey ak man day dem ak kër. day dem ak xol amul sago ci man sànq bu le ki leen koy tooñ nan ko bàyyil xëccoo bi mais noonu la mel ci man mm-hmm. amul sago ci man mm-hmm. ma koy ñaanal nag moo xam li mu bëgg mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal Mouhamed yàlla na nga sokkoorloog sa soxna yi comme asamaan ak suuf seen wërsëg yàlla na la yomb te doo ko dagaan kenn ci barke alayhi salaatu wasalaam yàlla bàyyi laak sa way jur wu jigéen ba nga koy weer di ko weri ci barke alayhi salaatu wasalaam ñaanu xol laa la tibbal te ñaan gi ma la ñaanal dama la ko ñaanal ak sell ci laa la ko ñaanalee ñaanal la ko nag ci devant partout dans le monde sax laay wax mhm. parce que télé bi dem na partout dans la monde mhm. sunu doom maa ngi lay ñaanal maa fi chéri yi mhm. maa ngi lay ñaanal yaa xam ni nga bëgg yàlla la ko yàlla defal ci barke alayhi salaatu wasalaam dal yàlla tànk yi wér dal a bees yàlla bàyyi la sam xel ba nga mën a encaisser may ñëw na di ñaanal sama njaboot di ko dalee ci ndey soxna mi taaw ba ci maam Abdou Aziz baax mi caat samay doom duma leen duma leen duma leen gërëm dama leen di ñaana yàlla na leen yàlla lafal cat te yàlla bàyyi leen ak seen wayjur may ñaanal nag samay goro muy may sa mbub ak Ablaye mbay mi ma bàyyi ginnaaw ndax wax dëgg yàlla dañoo ñëw sama kër jël samay doom te luñ ma benn yoon ma di leen ñaanal yàlla na leen yàlla bàyyi ak seen i soxna sokkorloo ne asamaan ak suuf luñ ma ci dara teguñu ma benn stress ñoo gën ci man ñoo gaaw ci man mhm. xaaluñu ñu luddul ma fetal suñu exécuté mhm. may ñaanal nak ba aduna bi wërngal këpp mhm. képp ku doon seetaan ma ngi lay bégé man mama talibé cheikh na di ñaanal sama yaay yàlla na fi yàlla bàyyi di ñaanal waa aduna wërngal kep suma limee damay juum di ñaanal sama jabar joju nday magen njaay yàlla na ko may borom kër bu remplacer sama càmmiñ ya ngi dégg ma ngi ñaanal ñep di ñaanal ren xam nga kuma dalal ren magal gi kan Eh, sëñ Saliou Gueule Tapée oh, dalal mooy taaw moo ma dalal ma koy ñaanal ma koy ñaanal cuun yàlla na yàlla guddal fanam amiin may ñaanal sëñ Ahmed Sougou mhm. surtout sëñ Jéeri waaye daan Sougou boobu mhm. moom tamit yàlla na yàlla yombal yanu maamam bi maa ngi nuyu nag sama càmmiñ Malick Mbaye Péex bala mu maa mere Yves Malick Mbaye màggal mu ñëw fi ñu waxtaan mu ñëw il faut dafa baax Mm-hmm. disponible pour man. baax pour man. Mm-hmm. musóor gi nee na moom xaw ma ko sonnul waaye moom dafa sonn. <laughs> <laughs> waaw Malick Mbaye dafa waaw Malick Mbaye dafa baax noo non kilifa yi seetaan a tax te <laughs> kilifa yee tax ak sama doom yi. Uh-huh. Malick Mbaye dafa baax mm-hmm. disponible pour man. yaa ngi dégg may nuyu sama dëkkandoo yëpp bu ma limee damay juum. yaa ngi dégg du nuyu sama famille yëpp. sama mag yu jigen yi sama mak doomu hmm. nday sama rakk yi ngi nuyu ñep di ziar ñep di balu ñep ak hmm. tay bal ñep ak hmm. di ñaanal mama Fatou Ngom yalla nako yalla may wër ak dundu yalla nako yalla baye ak am xelam mu yeggale mission ba keroog muy jéxal ndax ku dul jeexal amul yaa ngi dégg fi kuy bañ ñu wax la sa jéxal rek bu juddu ñëpp jéxal mhm. waye nak yalla na yéx te bu suñu borom di jël yalla nañ jël ci anam bu bu bu rafet mhm. sama jambar yep ma ngi sama jigeni ni mhm. sama lingeer yi sama jambar yi ñun ñëpp ma ngi leen di mhm. ñaanal dégg nga di leen naan yalla na yalla guddal seen fan bàyyi leen seen borom keur ma ci cité nak wa wa wa 2 sama dom nday Fatou ndjay mo yor kalabaasu mama talibé Cheikh na jaar jaaru jambar mama Baro mo yor kalabaas d'or bu bu jaar jaaru jambar ñom ñëpp ma ngi leen di ñaanal di leen ziar wasalaam ba beneen yoon. jërëjëf émission bi neex na yaatal nga ma. kontaan nañu jërëjëf merci beaucoup. Euh, Dalla kaay jël sa sa mic bi. check check your mic man. je prends mon mic. yes Dalla waay. <laughs> dama laa bëgg. Yves barke Serigne Saliou. ko ah. dàll yi rek. d'accord Mouhamed lan ngay lan ngay tàggatoo. waaw eh, DJ Grand yow ñu ngi lay sant bu baax li ñaanal yàlla réew mi yàlla def fi jàmm. amiin yow di lay ñaanal jàmm bu baax wax dëgg yàlla yow suñu grand nga. nit mm-hmm. ku baax nga. Mm-hmm. référence nii nga mel. Mm-hmm. li ngay wane ci télé bi. noonu nga mel ci ci ci ci biti. ñun am na fréquence fréquentation boo xam ni fa la ñuy toog. mun naa ñu fay toog ñëpp man maa ci gën a tuuti. mais terewul bu ñëwee da ngay wàcce sa bopp ba sa heure émission jot nga ñëw. wax waxi jàmm di lijjanti kenn buñ naree déborder sax mu orienté ñu. donc di ziar tamit ki nga xam ne moom mooy soxna Umu. Mhm. nit ku baax la. ñu mhm. ne mel. bi mooy deuxième fois ma di ko fekk ñu yàgg nañ ci média. Mhm. def naa ci vingt cinq ans. ci lañ ko ci fekk. mais korog bi mën a cëpp ñëw gis ko ñu toog. nu mu meloon noonu la melaat tey tooñ bi korog loolu na fi nekk woon di ma tooñ. donc moom ku baax la yàlla na ko yàlla jàppale bu baax. yoonu Nicolas Gouare bi mi ngi ci bëgg a dem xanaa nga jaasi taal bi Cheikh Ah, jigéen ñëpp eh. nga demandé eh, ah, ah, defal loolu moom loolu moom moo ci gaaw. defal mm. may maman est-ce que kon du ma fanaane seen kër. <laughs> moom ku baax la. ak bourse itam foog nga jàppale ko. waaw waaw ma waaw loolu man balaa ma koy fàtte. waaw. ma ko suba teel jël na passeport bourse pour dimbali ko pour mu am visa ndax mu tukki benn yoon. parce que dañ toog fii keroog mu dugal maxo ne ko dimbalil Bou Siteu nga fexe mu tukki maxtaar ku baax maxo bi mu xëyee woo na Bou Siteu jël na passeport bi dana ko yóbbu fu mu toll dinaa leen ko ba bu bu insha allah bu jotee visa bi fii laa indi passeport bi ne leen visa bu a ngi nii te billet bi ku ko war a jënd sunu yaay ajarat nday sofi taal maanaam moo koy sax may billet ndax moom jaay ko di billet la seen bi la koy may ndeysaan euh, mhm. bi Euh, micro bi kaay. waaw waaw mm-hmm. dama fàttee wax ni. Euh, mama taalibi cheikh na. Mm-hmm. bu ñu defee ni seet rek la mën ak faj. ok mama taalibi cheikh na. Mm-hmm. yaayi daara la. waaw da ngay dimbali waate. <laughs> da ngay dimbali waate. voilà c'est bon donc loolu dinaa si ñëw. moom. dañ koy sant di ko gërëm. ça fait douze ans maa ngi ànd ak moom. ci loolu li mu doon ñëw nii. Mhm. da doon sàq mi sama lanc mën na ko doo ko wax man maa koy wax. waxuma la faj ak seet. Mhm. mais ci social lay loxo social bi waay mhm. ak daara yi. daara yi waxuma la faj ak seet laa wax. mais ci wàllum joxe ci lay jox. loxo ndeyjooram bi lu ci tegu du fanaan. lépp lu jëm ci wàllu daare yi ci wàllu alxuraan surtout diine. Mhm. loolu rekk ko ñor. Mhm. orphelinat yi. orphelinat yi am na association boo xam ne sax taxawal na ko. Mhm. parce que moom ci loolu la dox deful pour intérêt boppam. loolu loolu la ci gaaw. loolu da cee gaaw. loolu daf cee war a gaaw association parce que ñoo xamante ne. ñooñu la ñuy wër ku ñu jàppale. wallaahi te xaalis xaalis baa ngi tegu. yow waxtaan naa ci ak yow. mu encouragé ma ci lool. mu ni ma yaay maag yow a yam écran moo ñu sonal mhm. mais defal nii def nii def nii mhm. te la ma waxoon def naa ko te am mhm. naa ca ndam ndax yaa ngi dégg parce que daara yi ak association yi damay lancé benn appel pour képp kuy defal yàlla man man ñëw nga sama kër xam nga ne man jekk naa sant naa yàlla mais lépp lu ma dagaan jaam ñee tax ma dagaan ko parce que da ngay gis koo xamante ni yor na njaboot amul lu mu dundee mu ñëw nga gàlloo ko dépasse yaakaar ko ci saw ñaq ku feebar indi la ordonnance ah ku am doom indil la ko déggoo ma de ak mag mu feebar ñu ñëw diis la ko nga war a nekk waa jalis yi li ma yor ci ay ordonnance fees na valise te man aw ma kenn koo xamante ni ginnaaw Mawlaana laa naa taala moo ma jàppale yaa ngi dégg def defkat lu baax yi bari nañ ci dëkk bi ma bëgg ñu dégg maman Talibé Cheikh na Iliman Lam te jàppale maman Talibé Cheikh na ci jaamu yàlla bi muy jaamu yàlla muy daara yi orphelinat yi ak néew gi doole yi te man xam ne dërëm bu ma waay jox fu ma ko dugal danaa la woon fa ma ko dugal. macha allah te boo ko xoolee da xam. woo naa ci Ilimane waaw daal comme ni ko la gërëm. di gërëm maman Talibé Cheikh naa nit ku baax mhm. wax ci moom noonu la mel. Mhm. njabootam yëpp noonu la leen uufee man li ma gën a neex ci moom. Mhm. mooy ni mu def njabootam. te loolu yaakaar naa ni sax ëllëg ku na xam ne ni yàlla dina la ko laaj. incha allah woon sa njaboot. donc ñu lay sant di la gërëm di ñaan yàlla xam-xam bi yàlla yàlla na fi yàlla bàyyi nag surtout voilà jërëjëf. jërëjëf Mouhamed Oumou cant ak ngërëm ñeel na la Yves mhm. euh, di kontaan moment ci gaal yi laa naroon a jaar ah mhm. ah mhm. mu ngi sa loxo de donc àdduna bi merci mama donc jërëjëf ñu ngi kontaan macha allah tamit euh, vraiment oh, li ñu wax tamit leer na nañ euh, di la ñaanal gudd fan ak wér macha allah Mohamed aussi ñu ngi lay remercier bu baax nit ku baax nga dàll yàlla bu dàll bi dagg. waaw waaye di remercier aussi ñi ñuy seetaan ak ñi bàyyi seen soxla yëpp toog jàkkaarloog euh, guddi gi ba heure bi ndax ci émission guddi gi sax ngay xam ne Sénégal kenn du nelaw. Mm-hmm. donc ñu ngi remercier ñëpp jërëjëf. jërëjëf. dañ koo daan. waaw dama demoon Thiès. Mm-hmm. dama demone ties kër Cheikh Abdou Aziz. ties kër Cheikh Abdou Aziz. Cheikh Abdou Aziz euh keur Cheikh nama bu Cheikh Abdou Aziz. ma tassante fa ak ben cherif cherif bi wax deug yàlla nti man cherif dañ may jox sama waccu way chauffeuram ni ko kii kan la mu wax ko may kan chauffeur am ma damaa bëgg nga ñaanal Bou Siteu sama mag la dafa am combat. Mm, chauffeur am chauffeur mm-hmm. mu ne ma Bou Siteu sama mag la ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. damaa bëgg nga ñaanal ko dafa am combat. Mm-hmm. ma ni ko bu timisee nag ma woo timis mu woo ma ma ni ko ci kanam nag ma woo mu woo ma fay sama téléphone man maa def lii mm. <laughs> dama ko ko wax. waaw mais tax nga ko dañ koo daan daanaka rek jël micro bi jox ko daan nañ ko. ma rek. ah bëgg mu leer rek. ah parce que dafa sama xel dem. waaw damaa bëgg mu leer daal la waaw dinañ ma seetaan. kon ñu ngi lay dina ma ñu ngi lay dégg parce que ci saa la ko woo. ni ko maire bi nee nga wax ko sa nga mu wax turam wax turu yaayam. bu nga timis jot mu woo ma woma ci kanam mu ma fay téléphone bi. man maa def li barke Cheikh na Cheikh Sado bi hmm. man maa def lii. d'accord daal la jërëjëf. waaw maa ngi maa ngi ma maa ngi maa ngi nuyu ñi ñu doon seetaan téléspectateurs yi. Hmm. di nuyu suñu yaay ji nga xam ni li mu wax leer na loola. Ah. Hmm. di la nuyu yow le boss de boss. ah le king. di nuyu waa kër Alsaan Mbaye instant bi ñu ngi seetaan ah. le griot des VIP Ngañ ah. maa ngi koy jaar nit ku baax la chéri euh, chéri ami ah. ñu ngi seetaan euh, instant bii nii di nuyu Alsaan mu ndaw ah. di nuyu ñëpp ñoom. sa sa toogaay bi la ñuy. ah baaxul. non non bi quoi la ñuy wax. toogaay patron bi teg leen. ah d'accord non non non non <laughs> moom a. Yves moom a yaatal rek ah. waaw yaa ma yaatal ma xàppi quoi. yaa ne ma daal relax quoi. voilà mais Yves lu garaaw nag am na Sénégal. Uh-huh. xeeb nañ ko trop te lu garaaw la. Mm-hmm. pénurie naanaa am na de. waxoon naa ko dem ñu daa ko waxaat naana naa amul fi dëkk bi de. nga jël ngun-ngun. ah d' accord d' accord. ngun baax na. waaw incha allah ci kattanu yàlla. de façon kontaan naa. Mm-hmm. maa ngi nuyu Sénégal yëpp. amoo ay dóor yoo war dóor nii. pour màggal gi ñu jox la yokk paas bi. Eh, Mamor si. la ilaha illallah. Mamor si ah. wóoral na taaliba Serigne Touba. Mm-hmm. ah maa ngi koy ziar maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. moom day jox ay paasu màggal ah. Adja Sofital. kenn du Alpha Voyage borom cere mbuum yi laa ilaha illallah borom kurus gi hmm. kenn du kenn du kooku ci baax sell hmm. yiw hmm. force tranquille dëgg la de nday Sophie nit ku ko barke Serigne Saliou waaw waaw waaw laa ilaaha illa lu mu laal gën lu mu laalul borom Alpha Voyage hmm. maa ngi koy maa ngi koy nuyu moom it day joxe ay paasu màggal ah maa ngi nuyu maa ngi nuyu <laughs> yow doo bébé baas ak Pape Diouf ñu jox la sa paasu màggal waaw waaw ak ni nga sonnee ci ñoom yow if kii waaw dëgg la kii dafa réeroon dafa <laughs> a <laughs> di nuyu bébé baas ah di nuyu sa paas waa kër Pape Diouf yi waa kër Pape Diouf yi euh, Baas. mooy baayam ah. Mm-hmm. ah parce que seen taawu kër Yoro mm-hmm. Baas. Mm-hmm. mooy baayam mais Ismaïla instant bi mooy xalifa parce que moom mooy taawu kër gi maa ngi koy nuyu. di nuyu Pape Diouf. ah maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu daal war a jox paas. Pape Diouf ah nga ci moom de. waaw waaw waaw la. sama grand ku baax la nga ci moom de. nit baax la damay jox pa woy ma. Hmm? na la jox paas. waaw moom day jékki-jékki rek wéef bi rek. gis nga toog télé nii ay non sama grand te fekk deful la dara Pape Diouf naa la jox paas. d'accord. naa la jox sa paas. dina <laughs> dina ko def i ak Alsaan ak Alsaan mbay Alsaan Mbaye léegi man moom sama paas man mat na bu yàgg. ah bon ndax man sëñ Maam Mor Mbacke Abibu. waaw sëdu sëñ Munu Mbaye Xaabaan. waaw kooku man su may dem ci moom. non man damay bëgg. d'accord invité nga ko émission bu neex. waaw Alassane mbay la griot des VIP. dafay spécial bi waaw. dama am question da nga bàyyi mën naa ko laaj kan dal ngay posé wa dal dama gis da da ngay ki forcer wax bi da nga deur wala lan la num fa demé non day xalat ñi wara war wala da ngay xalat tur ngay wër sa bopp bi ni wa wa parce que xam nga tur bari xamatuma kan la kan légui nak damay réer damay damay coppati fi coppati fi mais mais mais ki yi dal xamna naa ni Modou gay dañu bëgg dañu bëgg a tëdd waaw sa paasu màggal mat ak Basirou Diop ku ñëw ah day mottali day yok rek. wa d'accord accord ñoom Bass ah ñom ñom ñep waay Serigne Saliou yi. waaw. Euh, euh. ila Touba. <laughs> balo tak na. jërëjëf kontaan nañu. ñu ngi lay di gërëm ba suba inshallah euh, ak benen invité suba nak dañuy def spécial safar ñu tejé ko semaine bi ndax bu ñu weesoo suba jeudi la donc lundi inshallah moy mooy magal gi hein donc di nuyuwaat bu baax a serigne Moustapha Diop mang koy nuyu bu baax baax mom at bu jot kërëm lañuy dal. ci màggal gi ba ngoon ñu doog a dem seeti suñu sëriñ sëñ Mamor Mbacke Abibou ziar ko bu baax a baax donc sëñ Moustapha maa ngi lay ziar kontaan nañu ah, ak euh, waa Touba yëpp soxna yeeg ah, sunu yaay boo ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar kontaan nañu mama taalibe Cheikh naa jërëjëf kontaan nañu dinañ defaat yeneen i waxtaan incha allah fii jamono waaw ay jamono may bañ liy buusi te di bañ a dégg ba ren di déwén buusi dañ toog fii sëñ Cissé di ko ñaan naan ko comme bëgg nga visa ba ren bu ne moom dégg ba ren di déwén moom daa bëgg dégg fi ak semaine bii wala jëmmi jamono waaw mais ren di déwén lay bay dégg waaw <laughs> wax ñu bëgg la fay moom koy nañ ñuy dékk micro yi rek ñuy wax xam naa xam naa xam naa moom fii moom mm-hmm. mën naa nekk ba jëmmi jamono waaye site internet bi moom mm-hmm. jox naa leen rendez-vous rek bañ jóge màggal ga incha allah bu Alassane Mbaye ah. ñu leen di nuyu maa ngi lay jërë ngeen jëf. ok ma la régie Issa merci Malik. ak Mouhamed à demain incha ci émission